ci comme ni ko mbokk bi waxee jug def li ñuy wax ziyaara sa mbokk jullit lu rëy la ci islaam kon ci genre daje yu mel nii ak taxawaay bu mel nii duñu mën lu dul sant yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xam ni moom moo ñu baaxe mbir yooyu nga xam ni mbokk yi taxaw nañ ci te muy ay yiw ginnaaw bu ñu ko ci santee moom borom bi subhaanahu wa taala di ñaan mu saxal ñu ci te itam di ci gën a soññante ci suñu biir ginnaaw loolu dafa am benn mbir boo xam ni ci loo aju suñu wàllu diine la bokk mbokk yi sàkk woon ci ne comme que dañuy daje ci benn béréb ci béréb yi dafa fa seetante muy li ñuy wax ziyaara te ci kaw islam la aju ñu rafetlu woon jël benn tomb ci loo xam ne suñu diine la aju bu ñu ñëwee teew ñu waxtaan ci lu nga xam ne moom la mbokk yi rafetlu woon comme thème boo xam ne ci lañuy waxtaan mooy almuwalaat wal muaadaat mooy féetewoo ñenn mbokkoo leen ak itam noonoo ñenn bañ leen te loolu bu ñu ko waxee liñ ci namm mooy ci lislaam maanaa léegi ci biir lislaam bu fekkee jullit ba ciy dund dafa am ay nit ñoo xam ne lislaam da koy sant ne ko ñii nanga leen def mbokk nga kook ñoom féetewook ñoom bëgg leen ndax lislaam boobu ngay dund te yàlla subhanahu wa taala moom moo ci jiitu ndax lépp lu jullit bi di def ci lislaam yàlla la ciy seet mu am itam ñu ko lislaam wax ne ko ñii nanga leen noonoo nga bañ leen te itam loolu day tegu ci kaw lislaam ba léegi da nga koy def ngir yàlla subhanahu wa taala moom mooy tax léegi loolu nga xam ne mooy almuwalaat wal muaadaat nekk benn tomb boo xam ne dafay aju ci aqida bi ci pas-pas bi nga xam ne moom la nit ki di fas digganteem ak boroomam ndax tomb la boo xam ne ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo ciy wax dañ koy faral di dugal ci buntu al aqida maanaam buntu pas-pas ndax day delluwaat ci pas-pasu jullit bi mooy ci ngëm-ngëmam li mu fas foofu ci lañuy ñuy jëlee benn tomb boo xam ne day tudd alwala wal bara ndax jullit bi ci li muy fas ci loolu lay bëgg nit ki ci li muy fas tamit ci loolu lay bañ nit ki ci loolu lay dëddoog moom moo tax léegi balaa ñuy dugg ci char leeral lenn ci ay masail yoo xam ne dafa aju ci tem boobu nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaanee dañuy njëkk a gëstu lenn ci te itam li may fàttali mbokk yi di ko fàttali sam bopp mooy ne li may wax dama ko toxal rek ci ay waxi borom xam-xam ñëw ngir jottalente ko suñu biir mooy ay waxu borom xam-xam yoo xam ni <coughs> bañ naa ko ba dama ko bind ngir liir ko tekki ko comme ni nga xam ni noonu lañ ko noonu la ko borom xam-xam yi waxee rahimahumullah dañuy wax ne almuwalaat maanaam féetewoo ay nit mbokkoo leen ci lakk arab ñu ko jëlee ci waala yu waali muwala maanaam boo féetewook ay nit bëgg leen foofu lañ jëlee boobu wax boobu kàddu nga xam ne mooy kalimatul muwalaat te mooy féetewoo maanaam kon ci benn verbe la jóge buy waala yu waali léegi loolu lu muy tekki ci arab mooy dafay tekki ne nit ki bëgg nga ko mbëggeel boo xamante ni xooluñ ci ban degré la ci wàllu bëgg waaye rek bëgg nga ko jegeel ko sa bopp bu boobaa ñu ne léegi kii kon mbokkoo nga ak moom ci suñu làkk ñun li ñuy wax te loolu mooy tekki almuwalaat kon képp koo xam ne yow léegi bëgg nga ko nga féetewoo ak moom jël ko xëcc ko mu jegale léegi sës ci yow bu boobaa kon mooy féetewoo nga ak moom loolu la baatu almuwalaat ji tekki ci làkk arab ci boppam mu des nag bu ñu ñëwee ci suñu diine islam ñu xolaat yeneen euh, branche ak yeneen masail yoo xam ne mën nañ ko jëlee ci biir muwalaat boobu ci xadis ibn abbas yonent bi salallahu alayhi wa sallam mi ngi wax naan awthaq ora al iman almuwalaatu fi llah walmuaadaatu fi llah walxubbu fi llah walbugdu fi llah xadis boobu cheikh nasir taxsin na ko rahimahullah fi silsila alsaxixa léegi xadis bi lan la yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax daf ne ci buum yi nga xam ne ñoom ñëw të takk ngëm yàlla jullit bi mu ne bi ci gën a dëgër mooy féetewoo ci yàlla booy noonoo itam nga noonoo ci yàlla subhanahu wa taala booy bëgg nga bëgg ci yàlla booy bañ nga bañ itam ci yàlla subhanahu wa taala mu ne loolu moom mooy buum bi nga xam ne mooy buum bi gën a dëgër ci buum yi nga xam ne ñoom ñoo takk ngëm yàlla nit ki kon nga gis ne kalimatul muwalaat maanaam comme nu nga xamante ni noonu lañ ko tekkee ci làkk arab noonu itam la rotee ci même maana bi ci même sens bi noonu la rotee itam ci xadis boobu nga xam ni mooy xadis abdullah ibn abbas léegi bu dee kalimatul muaadaat te mooy noonoo moom masdar la ba léegi comme ni nga xam ne noonu la ko muwalaat nekkee ci verbe boo xam ne mooy aada yu bu fekkee dafa noonoo kenn bu boobaa boo conjugué verbe bi ci ngay génnee al muaadaat te loolu moom moo gën a maanaam muaadaat moom moo gën a tënku li nga xamante ne bi moom mooy meroo ndax meroo mu su see déggee noonoo nit ki mën nga koo mere mu mere la te taxul ngeen noonoo ak noonoo doxul ci seen diggante waaye mere nga ko rek ci benn mbir mais bu ñu nee noonoo bi moom moo gën a nekk lu gën a xat lu gën a sew ak noonoo ak meroo ndax noonoo luñ ci namm moom mooy nit ki nga soril ko sa bopp ci benn anam ci anam yi soril sa bopp yi moo xam da nga koy dog dootoo ko tudd wala dootoo jëflanteek moom ci nu mu mën a doon ci loo xamante ni dina dox ci seen diggante yéen ñaar te al adawa bi nga xam ne mooy noonoo nga xam ne ci lañ jëlee verbe boobu di al muaadaat benn yëg-yëg la bu nit ki di yëg huwa shuur al mutamakin fi al qalb bi qasd al idrar wa hubb al intiqam benn yëg-yëg la bu nit ki di ci xolam boo xam day nekk ci biiram bu fekkee loolu dal na ko te loolu mooy noonoo bu nekkee ci xolu nit ki bu boobaa bu amee yëg-yëg boobu lan lay nam ma def day nam lor ki nga xam ne moom la am ci moom yëg-yëg boobu ndax yëg-yëgu noonoo boobu bu nekkee ci sa xol dafa am ci koo ko jëmale ci kooku nga koo jëmale da ngay sentir ci sa xol ne danga nga koo nam ma lor wala da ngaa nam ma fayu ci benn mbir boo xam ne bëgg nga koo fayu ci kawam kawam kon dangay gis ne almuaadaat dinañ ko wax di ci namm bañ nit ki ak itam bëgg koo lor wala nga fayu ci benn mbir ci kawam te ñoom ñaar ñaari baat yooyu te mooy almuwalaat wal muaadaat dañoo juyaloo bii dafa jaar ni bii jaar ni moom la ñuy wax ne duddaani laa yajtamiaan moo tax shaacir bi woykat bi di wax naan tuxibu aduwi thumma tazumu annani sadiquk inna alwudda anka la aazibu maanaa dafay woy ne yow da ngaa bëgg sama noon ba pare nga bëgg ma gëmloo wax ma ne da nga maa bëgg encore man sa xarit la mu wax ne loolu mënul nekk bu fekkee sama noon sa la nga wëlbati man léegi sa xarit la mu ne loolu mënut a dajaliku dajaloo ci sa xol kon yow amoo ci man benn cofeel loolu lu mu ci bëgg a tegtale mooy ne mbëggeel googu ak féetewoo googu moom ak noonoo googu nga xam nit ki dina ko noonoo ñoom ñaar mënuñoo ànd ci benn ci benn jamono bi ci benn instant bi ndax ñaari mbir lañ yoo xam ni duñu dajale ko léegi kon ci làkk arab dañuy gis ne ci lu gaaw mooy ne almuwalaat mooy nga féetewoo kenn bëgg ko jegeel ko sa bopp wal muaadaat moom mooy nga noonoo kenn soril ko sa bopp ci benn anam ci anam yi noonoo yi te itam ne nañ maanaam ak noonoo mooy nga yëg ci sa xol yëgeel goo xam ne dafay waral ci yow nga namma lor ki nga xam ni moom nga am ci moom yëg-yëg boobu te itam fayu ci moom léegi bu fekkee dem nañ ci al mafhumu shar'i maanaam déggin bi nga xam ne islam ci boppam moom la jox ñaari ñaari kat kaddu yooyu muy sens bi nga xam ne léegi moom la ko lislaam jox dañuy gis ne al muwalaat mooy al muwaafaqa wal munasara wal muaawana wal rida bi afaali man yuwaalihim mooy nga dëppoo ak nit ak itam di dimbalanteeg moom ak itam gërëm ko kontaan li nga xamante ni loolu lay jëf képp koo xam ne yii daje na ci moom sa digganteeg moom bu yeboo nga xam ne féetewoo nga ak moom mu des kooku nag ndax war nga koo féetewoo wala war koo féetewoo loolu beneen gëstu la boo xam ne ak seguñ ci waaye liñ nam ci wax ji nga xam ne wax nañ ko mooy ban sens la baatu laat am ci sharia te mooy li ñu wax ne mooy nga dëppook nit ci li muy jëf wala ci ni mu mel wala ci li mu bëgg dëppoo dañuy xam ne maanaam maanaa bu yaatu la sens bu yaatu la mooy nga dëppook moom tey itam di dimbali ko ak moom dimbalinteeg ak moom almunasara wal muawana ñaari baat yi bu ci nekk dimbali lay tekki mais seeni sens uti nañ tuuti wa rida bi afaali man yuwalihim ak itam gërëm jëf yi nga xam ni ke mu féetewool yooyu jëf lay jëf mu gërëm ko am ci am satisfaction ci jëf yooyu la képp koo xam ni loolu am na sa digganteeg moom bu yóbbu nga xam ni euh, féetewoo nga ak moom léegi muwalaat boobu nga xam ne mooy féetewoo boobu dafay xaajalikoo ñaari xaaj dafa am muwalaat boo xam ne amma la ak boo xam ne xaassa la mooy boo xam ne dafa général dafa yaatu ak boo xam ne bu bu tënku la nekkul loo xam ne lu yaatu la lool bu bu yaatu bi mooy bi nga xam ne xaqiqatan bu fekkee jullit bi defal na ko koo xam ne yéefar la wala koo xam ne waru koo defal sax la ñuy wax parce que dugaguñ ci kan lañ warta defal muwalaat boobu te mooy féetewoo boobu bu boobaa kufru lay doon day nekk ak kéeféer goo xam ne da koy génn ci lislaam ndax loolu warul am ci digganteem ak kooku nga xam ne moom la ko defal te itam bu ko ko defalee loolu dafay waral ci moom kufru te muwalaat boobu nga xam ne mooy al muwalaat al amma moom dafay am maana ak tawalli féetewoo la ba léegi waaye tawalli féetewoo la goo xam ne itam gu tënku la goo xam ne li muy dëppool mooy muwalaat al amma bi tawalla fulaan comme ni ko yàlla subhanahu wa taala di waxee ci quran lu bari ci tere jullit yi ñu def tawalli boobu ñi nga xam ne ñoom ñooy yéefar yi tawalli boobu loolu la ne la baat bi mook al muwaalaat al amma ñoom ñaar ñoo bokk même sens léegi nag mu des ndax man mii di wax mën naa daj ci làkk olof ay baat yoo xam ne dinaa ci mën a jox bu nekk sens bi mu yor ci arab ndax al al muwaalaat ak at tawalli am na différence bokkuñu léegi dañ ne al muwaalaat dafay xaajale ko ñaari xaaj xaaj boo xam ne bu yaatu la ak xaaj boo xam ne bu bu tënku la bu yaatu bi nga xam ne mooy al muwaalaat al amma nga xam ne moom sóoraale seetutoo ci dara sóoraale woo ci dara ki nga ko defal da nga ko koo defal ba mu mat sëkk amul benn limite sa digganteeg moom ci féetewoo boobu nga ko féetewoo loolu lañ ne moom ak tawalli ñoom ñoo bokk même sens te boo ko jullit bi defalee yéefar dafay nekk kufur nasalullah al aafiya wal xaas sax mu ne bi nga xam ne moom mooy bu tënku bi lool mu ne waxiya muwalaatul kuffar li garadin dunyawi maa salaamati al itiqaad wa adami idraari niya أو وعدم إضمار نية الكفر والردة كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة mu ne bi bi nga xam ne mooy muwaalaat xassa bi nga xam ne dafa tënku moom nekkul boo xam ni ki nga ko ki nga ko defal ki nga xam ne da ngaa féetewoo ak moom carrément amul lenn loo xam ne moom ngay seetati sa digganteeg moom ci féete googu da moom ci lépp mu boobu bokkul ak bi nga xam ne dafa am rek ci benn mbir boo xam ne xëy na moom nga ci féetewoo ak kooku nga xam ne féetewoo nga ci rek moom boobu du nekk kufur ci yenn anam yi ci yenn sens yi ndax boobu mooy comme li nga xam ne daloon na benn saxaabi bu tuddoon xaatib ibn bi baltaa yonente bi salallahu alayhi wa sallam bu mu bëggee ubbi makka bëggoon a dem aji ci xaswa bi ñuy wax xaswatul xudaybiya bu mu demee ba jub makka ci benn place bu ñuy wax al xudaybiya dafa wàcc foofu bi ko yëfari makka yégee dañoo yebal ci moom seen i ñenn seeni kilifa yebal ci moom ñetti yoon ba ci ñetteelu nit bi nga xam ne moom mu mujj ñëw kooku moo mujjee am benn accord ci digganteem ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci jullit yi bañ a dugg màkka ci boobu at nga xam ne léegi yonente bi salallahu alayhi wa sallam tëralal ko ay tomb ak ay churut yoo xam ni dañ cee dëppoo ñoom ak kuffaaru Quraysh ci jullit yi delluwaat Madina bañ a dugg ci at boobu Makka bi nga xam ne loolu am na yonente bi alayhi salatu wasalaam dellu Makka dellu Madina yéefar yi seen engagement yooyu nga xam ne jëloon nañ ko seen diggante ak jullit yi respecté wuñ ko ñu daal di koy ñu daal di koy jalgati bi ñu defee loolu ci la yonente bi salallahu alayhi wa sallam dajale jullit yi daal di nëbb mbiram ne yàlla allahuma ami amrana alayhim yàlla yow na nga lëmdëmal na nga nëbb suñu mbir ba ñoom yéefar yi duñ ko xam biñ jafee loolu di waajal mook jullit yi ngir génn madina dem makka xaatib daal di jël benn risaala benn lettre bind ko yebal ko ngir mu dem Quraysh ngir wax leen ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi génn ñëw ci yéen ngir ubbi Makka bi mu defee loolu ci la yàlla subhanahu wa taala leeral mbiram yonent bi yebal ay nit ñu dem dabi ji lettre boobu nangu ko achaahid mooy xaatib fii daf fee féetewoo ak yéefar yi ci benn mbir ci mbir yoo xam ne mbirum jullit ñi la mu féetewoo ci ak yéefar yi daf leen li ñuy wax al muwalaat mais muwalaat bi xaasa la ndax daf koo def ngir benn xarat dun wa dunyawi ngir benn intérêt àdduna intérêt àdduna boobu mooy lan mooy na moom gëmul ci biir xolam kufru moo tax mu def loolu du caagante ne dafa bëgg ci biir xolam xola xolam xolam yéefar yi bëgg islam bañ a noot yéefar yi wala yooyu amul benn pas-pas ci pas-pasu kufur boo xam ne moom la fas ci xolam moo tax mu jëf-jëf boobu mu jëf mais lan moo tax mu def ko mooy dafa dañ ko doon chantage moom ci lan ci am na ay mbokkam yu nekkoon Makka bi mu hijra bàyyi leen dem Madina amul ku koy ku leen ku ko mën a taxawu ci ginnaawam ci mbokkam yooyu léegi mu ne ñeneen ñi nga xam ne ñooy muhaajiruun yi am nañ seen i mbokk yu nekk Makka yoo xam ni am nañ ñu leen fa mën a taxawu moom nag dafa nekkoon rek benn waay bu tumuranke bi mu fa jógee amul ku mën a taxawu ci ginnaawam ay mbokkam léegi ci la defee loolu ngir yéefar yi mën koo sàmmal ay mbokkam ba kenn du leen def dara ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne sadaqakum lim leen wax lu dëgg la ci moom loo xam ne fenu ci wax na dëgg yàlla subhanahu wa daal di koy ngàntal léegi kon loolu mooy moalaat bi nga xam ne xaasa la moom ak beneen moalaat bi ci des ñoom ñaar ñaari xaaj lañ yoo xam ne ba léegi ci féetewoo lay dugg mu baax torop nit ki tàqale leen xàmme leen ndax mu xam benn bu nekk ban atte la koy jox léegi nag bu dee tawal tawalli bi nga xam ne moom la ñu waxoon muy féetewoo bi nga xam ne moom la ñu waxoon ne mook al muawalatul amma ñoom ñaar bokk même sens bi moom mooy badlul al muhib lima yurdi al mahbub badalan tamman moom mooy yow mi nga xam ne da bëgg kenn nga defal ko li nga xam ne moom la bëgg defal goo xam ne defal gu mat sëkk la amul fenn fu mu yem amul diggu doom léegi yow dafa am kenn koo xam ne mu nga bëgg féetewoo ko léegi kooku lu mu bëgg da ngay pare ci taxaw ci def loolu loolu boo ko defee def nga li ñuy wax ak tawalli mën naa naan ndox jazakallah xeer léegi comme ni ñu waxoon ci li jiitu mooy ne muwalaat ak muaadaat dafa am seen diggante lu ñuy wax mafhumul muxaalafa mooy ne ñoom ñaar dañoo juyaloo léegi moo tax ci la borom xam-xam yi waxe ne maanaa léegi loo xam dafa am mafhumul muxaalafa dafa am benn qaayda bu ñuy wax ne al-amru bi shay nahyun an diddihi aw nahyu an shay amrun bi diddihi loolu masal la boo xam ne usul yu dañ ci ute mooy ne léegi su ma la teree benn mbir mooy wala su ma la digalee benn mbir mooy tere naa la la nga xam ne dafa safaanook moom léegi buñ ne léegi muwalaat ak muaadaat dañoo safaanoo dañoo féewaloo léegi kon lan lañ ci déggee mooy ne bu la yàlla subhaanahu wa taala teree na la yéefar yi bul féetewoo ak ñoom wala mu ne la féetewul ak jullit yi léegi kon loolu lu ñu ciy déggee mooy tere na la nga noonoo ak jullit yi tere noo la itam nga féetewoo ak yéefar yi ndax léegi masalan su ma nee la bul jóg su wala su ma nee la toogal mooy tere naa la nga jóg ci usuli yu ni dañu ndax léegi dinañ déggee ci ne masalan tere naa la ne la digal naa la ne la toogal ndax tere naa la ne la bul jóg est-ce que mas ne mën nañ ko cee déggee am na ci ñoom ñoo xam nee nañ su ma la nee toogal loolu mooy tere naa la ne la bul jóg am na ñoo xam nee nañ deesu ko ci mën a déggee mais loolu sama tere bi sama digal bi ma la digal dafay waral ci yow nga bañ a jóg maanaam digal naa la ne la toogal mooy waral naa ci yow ne la bul jóg mais terewuma la la bul jóg mu des nag ñu xool ba xam seen ñaari wax yooyu ñu wax sore na wala féewaloo na ba léegi ci benn maanaa bi lay dellu mooy su yàlla subhanahu wa taala tereel digalee ne la na nga féetewoo ak jullit yi mooy tere na la ne la bul def ak ñoom noonu mooy bul def ak ñoom li ñu wax muaadaat ndax ñoom ñaar dañoo féewaloo kon bu la digalee ne la feew eh, na eh, féetewoo ak jullit yi mooy bul noonoo ak ñoom bu la tere itam nela bul féetewoo ak yéefar yi mooy kon noonool ak ñoom ci sens boobu nga xam ne dinañ ko déggee ci al amru bi shay nahyun an diddihi léegi bu dee ci wàllu yoon gi nga xam ni al muwalaat ak al muaadaat ci islam yoonal na ko ne masalan nañu féetewoo ñi nañu noonoo ñi léegi am na ci laata ñuy dugg ci yan texte ñoom ñoo ñëw ci digle ndigal yooyu ak di tere ay mbir ñu laaj laal lenn ci li nga xam ne moom moo aju ci histoire ci loo xam ne yàlla subhanahu wa taala nettali na ko ci quran ci noonoo boobu ak fé ak féetewoo boobu am goo xam ne mës na koo am ci histoire yàlla subhanahu wa taala ko ci nettali ko ci alquran loolu mooy ci qissa bu mel ne qissatu ibrahim alayhi salatu wassalam yàlla subhanahu wa taala dafay wax ne qad kaanat lakum uswatun xasana fi ibrahima walladina maah id qaalu li qawmihim inna buraau minkum wa mimma tacbuduuna min duni illah kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum aladaawatu walbagdaau abada xata tuminuu billahi waxda léegi yàlla subhanahu wa taala dafa nettali julliti ci alquran genn noonoo goo xam ne amoon na ci diggante ay nit ak ay nit bi mu ñu ko nettalee ci tàmbali wax ji daf ne am ngeen royuwaay bu rafet ci Ibrahim moom ak ñi nga xam ne ñoom la nekkaloon te ñu gëmoon yàlla subhanahu wa taala ak moom di jaamu yàlla mu ne am ngeen ci ñoom royuwaay bu rafet royuwaay royuwaay boobu nekkul lu mu lu mu bàyyi noonu rek mais yàlla subhanahu bi mu waxee ne am ngeen ci ñoom royuwaay bu rafet daf ko tënk ci benn mbir boo xam ne ñoom dañ koo jëfoon mu namm ci ne jëf boobu nga xam ne ñoom jëfoon nañ ko ñun dañ leen cee war a roy moo tax mu ne id jamono bi nga xamante ni qaalu li qawmihim wax nañ seeni nit seenu xeet ne leen ñun dey set nañ ci yéen inna buraa'u minkum set nañ ci yéen mooy dañ nañ ci yéen dog nañ leen lan lañ ci teg wa mimma taabuduuna min dunillah ak li nga xamante ne da ngeen koy jaamu te du yàlla subhanahu wa taala léegi ñoom xeetu ibrahima alayhi salatu wasalaam ak ay nitam dañ doon jaamu leneen lu dul yàlla subhanahu wa taala mooy ashirk léegi balaa ngay wax nit ki masalan ne ko dog naa la yàgg li ngay jaamu te du yàlla subhanahu wa taala la shakk ni di nga def li ñuy wax iqamatul xujja mooy nga leeralal ko ne ko lii nga nekk nii du lu baax shirk la ndax lii ak lii ak lii ak lii moom moo tax ginnaaw bu nga xamante ne dem na ba fetteer lu am am na beneen étape boo xam ne moom moo topp ci iqamatul xujja boobu te mooy almuqataa mooy dok dok googu noonu moom mooy li mu wax ne buraa u minkum set nañ ci yéen baraa boobu mooy almuqataa mooy nga dog sa diggante ak nit ndax dafa am benn mbir boo xam ni moom lay def te mu ngi ci moom biñ leen dogee dañu leen dog tamit ñoom ak li nga xam ne dañ koy jaamu mu teg ci ne kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal bagdaau abadan wedd nañ leen yéen ak seen li ngeen gëm di ko jaamu gëm nañ ne li ngeen nekk kufru la te itam ak réer la te itam suñu digganteeg yéen am na noonoo goo xam ne dox na fi ba faw nag bi mu tuddee noonoo gi daf ci teg ak mbañante maanaam li dafa wax léegi noonoo ak bañante muy baxda adaawa muy delluwaat ba léegi ci lu ñu doon wax ci ne al adaawa ak al baxda bokkul maanaam léegi nit ki mën nga am benn noonoo gu dox sa digganteeg moom wala merante bokk laa bëgg a wax bu dox sa digganteeg moom te du tax ngeen noonoo ndax noonoo moom moo gën a tar merante mën nga mere nit te noonoo ak moom tayib léegi fii dafa indi li ñuy wax al atf te dañuy wax ne al atf yaqtadi al mugaayara daf ne baynana wa baynakum al adaawa wal baxda dox na suñu diggante ak yéen noonoo ak merante goo xam ne moom mooy dox suñu diggante ak yéen nga déggee ci na kon ndakate li ñu doon wax ne almuaadaat te mooy nga noonoo ay nit moom moo gën a tar li nga xam ne mooy albaxda te mooy nga merante ak nit léegi ñoom bu ñu waxee ne noonoo googu dox na seen diggante ak seenu xeet dañ ne abadan ba faw mooy at tabiit mooy loo xam ne dafay nekk ba faw loolu luñ ci namu mooy ba bàyyi yàlla subhanahu wa dañu fi jóge liñ fi jële ndax doomu aadama du dund dund goo xam ne ci kaw suuf xayaa abadiya la mooy dund goo xam ne dafay dafay wéy ba faw waaye dañ ci bëgg a namm ne ba faw ba fekk ñi ngi dund ñi ngi nekk ci kaw suuf te dañoo leen ci loolu nga xam ne yéen a ngi ci nekk moo tax mu indi benn charte ne xatta tuminu billahi waxda condition bi tax rek suñu noonoo googu dañ mooy ngeen gëm yàlla subhanahu wa moom dong léegi kon li taxoon ñoom ñu noonoo leen ci mooy dañuy jaamu leneen lu dul yàlla léegi bi mu indiwaatee condition pour teggi noono googu mooy ngeen bàyyi loolu ngeen doon jaamu te du yàlla ngeen ñëw jaamu yàlla subhanahu wa taala moom dong kon ñoom dafa am ci kaw lu ñu leen noono woon ci kaw loolu lañ leen joxaat condition ne leen bu ñuy dindi noono googu ci kaw loolu lay doonaat naka noon tamit am na ñuy wax asxaabul kahf mooy suratul kahf yàlla subhanahu wa taala nettali na ay nit ñoo xam ne dañoo ñoom itam génnoon ci seen xeet daal di leen di bàyyi dem ngir mën a sàmm seen diine rawale seen diine jaamu seen borom ndax ñoom lan lañ wax dañ ne wa ida wa ida wa id i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa allah fa'wu ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa dañ doon wax naan léegi yéen bu fekkee def ngeen li ñuy wax al-i'tizal ida i'tazaltumuhum léegi bu fekkee génn ngeen ngeen beddeeku seenu xeet ak la nga xam ni ñoom doon nañ ko jaamu te du yàlla subhanahu wa taala kon ñoom bi ñuy génn seenu xeet di leen bàyyi di leen beddeeku dañ leen a beddeeku ndaxte ñoom dañoo nekkoon di jaamu lu dul yàlla subhanahu wa taala te loolu mooy sababu li tax ñoom ñu génn seen xeet bàyyi leen nekkatuñ ci seen biir te bañ nañ bu ñu desee ci seen biir ñooñu fitnaal leen ba ñu génn ci diina ji nekk ñoom te mooy diine tawxid fekk ji leen ci shirk boobu nga xam ni seenu xeet ñu ngi ko doon dund moo tax ñu ne leen bu fekkee beddeeku ngeen seenu xeet ak lañ doon jaamu te du yàlla na ngeen dem fa u ilal kahfi na ngeen dem ci grotte boobu nga xam ne ñoom fa lañ demoon muy aw xuntu nga xam ne fa lañ làqatu woon bu ngeen ko defee la yanshur lakum rabbukum min rahmati kon yàlla subhanahu wa taala dina leen dina leen jox dina leen tasaareel ci yërmandeem dina leen tasaareel ci yërmandeem ba pay itam seenu mbir yàlla subhanahu wa dina ko def mu yéwén mu tegu ci njub te ñooñu ñu woon ay mag mais ñoom bi ñu gisee ne seen biir xeet mënatuñu fee jaamu yàlla dañoo daldi beddeeku génn ngir lan ngir rawale seen diine ndax loolu bokk na ci euh, li tax nit ki di dog digganteem ak nit loolu dina ñëw ci biir ndax am na ay mbir yu bari loo xam ne moo tax nit di dog digganteem ak nit moo tax masalan salafu bu ñu daan wax naan masalan bul toog ak diw koo xam ne masalan dafa yor bidaa dafa am ay mbir yu bari yoo taxoon ñu digal nit ki na ko bul toog ak moom mbir yooyu bokk na ci mooy bu fekkee da ngaa dem ba ci ci sa diine na yow boo nekkee ci biir société bi sa diine da nga koy ñàkk bu boobaa dootoo fi mën a mënati jaamu yàlla subhanahu wa taala ngir nga rawale sa diine loolu moom moo tax ñi génn ci biir xeet bi beddeeku dem ci biir xunt boobu ngir mën a jaamu seen borom ba li leen fa dal dal leen fa li nga xam ne mooy achaahid mooy mahallu chaahid ci xissa bi mooy ne ñoom mën nañoo jëlee ci ñoom tamit beneen jàng ci histoire ci ne ñoom itam loolu nga xam ne moom mooy noonoo ay nit bàyyi leen ngir ne dañoo def loo xamante ni dafa jar ñu noonoo leen ñu jàngee ko ci seen xissa bi ne ñoom defoon nañ ko comme nu nga xamante ne noonu amee woon ci xeetu Ibrahim alayhi salaatu wasalaam léegi ci adilla yi nga xam ne mooy tegtal yi nga xam ne moom moo ñëw ci alquran ci noonoo googu ak ci féetewoo googu nga xam ne jàlloon na léegi ci ñu tekki ko bokk na ci li yàlla subhanahu wa wax ne laa yattaxidi almuminin muminuuna alkafirina awliya wa man yafal dalika fa laysa min allahi fi shay illa an tattaqu minhum tuqaa léegi yàlla subhanahu wa taala dafa dafa wax ne bu ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla di féetewoo ak ñi nga xamante ni dañoo weddi yàlla laa yettaxidil muminuuna al kaafirina awliya mu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm yàlla bu ñu féetewoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo weddi yàlla subhanahu wa taala nga gis ne kon loolu tere la boo xam ne yàlla subhanahu wa taala wax na ko ci quran wa nahi yaqtadi yaqtadi tahrim maanaam bu yàlla subhanahu wa taala teree mbir boobu dafay daal di nekk lu xaraam ci nit ki mu def ko léegi kon li ñu waxoon ci maanaa féete mooy sensu féetewoo bu fekkee nit ki teewlu na ko ba léegi bu ñëwee jàng aaya bi léegi yàlla ne la bul féetewoo yi ah da gis ne kon ndakate liñ tekki woon ne loolu moom mooy féetewoo ne la loolu koo ko defal féetewoo nga ak moom loolu la la yàlla wax ne la bul ko defal yéefar yi maanaam léegi sens bi féetewoo amoon ci liñ tekki woon ci li jiitu loolu la yàlla wax ne la ko defal ñi nga xam ne ñooy al kuffar mu ne la laa yattaxidal muminuuna al kafirina awliya lan la ci teg daf cay teg benn benn xupp bu rëy boo xam ne day teg tegtale ne sax ndakate féetewoo ak yéefar yi min al kabair ndax kabira comme na ko borom xam-xam yi tekkee mooy bàkkaar boo xam da nga koy def ah ñu xupp la ci ne boo ko defee am nga ci mbugal sàngam buy dal sa kaw dañ de si mbugal mbugal wu rëy boo xam ne yàlla subhanahu wa na ko ci lu mel ne ñu rëbb la wala ñu ne la da ngay tàbbi safara wala ñu rëbb la ci wala ñu tiital la ci xupp la ci xupp bu rëy ne moom mooy doon sanction wu koo xam ne def na bàkkaar boobu borom xam-xam yi ne loolu kabira lay doon wala boo ko defee moom am la ñuy wax xadd muy benn pen boo xam ne moom lañ lay teg ci kaw ci fii ci àdduna bu fekkente ni jullit yi doon lañu àtte sharia masalan njiit boo xam ne moom moo leen di àtte ci kaw chariatullah mooy ci islam léegi nga jëf benn jëf ñu war a teg ci sa kaw benn pen léegi jëf boobu day daal di nekk min al kabair kabira lay doon tayib léegi fii yàlla subhana taala lan la wax daf ne wa man yafal dalik fa laysa min allahi fi shay képp koo xam ne def na loolu muy tere boobu yàlla tere ne jullit yi ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla bu ñu féetewoo ak yéefar yi mu ne ku def tere boobu nga xam ne yàlla tere na ko mu ne kooku nekkatul ci yàlla ci dara set na ci yàlla subhanahu wa taala loolu lu muy tekki mooy génn ci diine nga dégg na kon maanaam muwalaat boobu nga xam ne moom lañ doon wax sànq ndekete muwalaatul kuffaar daf lay génn ci diine ndax yàlla daf ne fa laysa min allahi fi shay mu des nag léegi ci li nga xamante ne bi moom mooy ñëw ñu jàng ban façon féetewoo ak yéefar yi moom mooy génn nit ci diine ngir nit ki bañ rek ne kon képp ndakate ku féetewoo ak jéefar yi yéefar nga ndax dafa amaat yeneen condition ak yeneen mbir yoo xam ne nit ki daf ko war a bàyyi xel bu baax a baax ci buntu boobu yàlla subhanahu wa taala def la ñuy wax al istisna istisna ci aaya boobu muy mu def exception ci benn mbir mu ne illa an tattaqu minhum tuqaa lu dul nit ki nga xam ne dafay laqatu dafay nëbbatu ngir ne lan ngir ne dañ koo domine dañ koo néewal doole masalan ci biir yéefar yi mu xam ne bu wanee diineem wane ak noonoom ci yéefar yi bu boobaa dinañ ko lor lor goo xamante ne bi moom lay daw loolu moom moo tax mu nëbb diineem te loolu dagan na ci yenn anam yi masalan yow léegi amuloo benn solution dugg nga ci ay biir yéefar bu ñu xamee ne jullit nga dañ lay rey léegi yow est-ce que di ngay wane sa lislaam wan leen sax noonoo ci ñoom pra appliqué aaya bi li jiitu woon ah léegi boo ko defee masalan ñu rey la wallahi bu fekkente ni sa iman àgg na foofu loolu yàlla subhanahu daf la ciy fay mais yàlla jox na la autorisation maanaam lii du ndigal boo xam dañ naan lu war la boo demee ci biir yéefar yi Ah, bu fekkee da nga am ngant ci ne boo wanee sa ngëm maanaam lii ci ay ci ay ci ay léeg situation yu limité wu lay léegi yàlla jox na ko autorisation ci ne mën na def li ñuy wax ak taqiya mooy mu nëbbu làqatu ba ñoom du ñu xam ci moom loolu bu ko defee mu rëcc loolu moom mooy li nga xam ne mooy illa an tattaqu minhum tuqaa ba léegi yàlla subhanahu wa taala di wax ne yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alyahuda wannasara awliya baaduhum awliyaau baad wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha laa yahdi alqawma alzalimin ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla subhanahu wa taala bu leen dem di jël ñi nga xam ne ay yahud lañ muy ay juif wa nasara ak chrétiens yi ngeen leen di def ay féete ñoo xam da ngeen di féetewoo ak ñoom comme ni ñu ko waxee woon léegi ci aaya yi nga xam ne ñoom ñoo jàlloon mu ne ndaxte ñoom ci seen biir baaduhum awliyaau baad ñenn ñi ay féete leen ci ñi ci des léegi loolu lan la ci nam ndax dafa bëgg a wax ne chrétiens yi ay féete lañ ñoo xam dañu féete woo dañoo waayoo ak juif yi naka noonu juif yi dañoo waayoo ak chrétiens yi te yàlla mi ngi waxaat ne wa qalat alyahudu laysat alnasara ala shay wa qalat alnasara laysat alyahudu ala shay maanaam ñoom dañoo weddante ci seen biir ñii gëmuñu li ñii nekk ñii gëmuñu li ñi nekk te am itam loolu sabab na ci seen diggante ak noonoo léegi ndax aaya bi dafay namm ci ne juifs yeeg chrétiens yi ndakate kon ñoom ay gaay lañ yoo xam ne ñoo ànd ñoo féete woonte seen biir wala baaduhum awliyaau baad mooy baadu nasara awliyaau baadi nasara wa baadu lyahud baax li baadi lyahud ndax léegi ñenn ci chrétiens yi ah ay waay lañ yoo xam ne ay gaay lañ yu ànd ak ñenn ci chrétiens yi wala ñenn ci juifs yi ay gaay lañ ci ñenn ci juifs yi bu njëkk bi moom lañuy moom lañ koy tekkee mooy ne ñenn ci chrétiens yi ay waay lañ ci ànd ak ci ñenn ci chrétiens yi lu tax loolu mooy ne ñoom ci seen dënni bopp amuñu benn mbir boo xam ne moom moo ci lañ sax saxuñ ci dara liñ nekk di ci jaamu yàlla subhanahu wa taala nekkatul diine yu ñu mën a wax ay diine la seeni i bànneex bakkan ak seeni i intérêt personnel la ñuy xool di ko sàmm ci seen i mbir tayib léegi ñoom bu ñu gisee islam ma ñëw tegewu ñoom ñëpp ñu ànd léegi di xeex islam bu boobaa ñoom dañuy nekk ñenn ci seen biir dañuy obligé dem féetewoo ak ñeneen ñi ci seen biir maanaam masalan juif yi sañ nañ wala bëgg nañ ñoom pare nañ pour tasaare christianisme jàppale chrétiens yi pour xeexee ko l'islam bien que nekkuñu ay chrétiens léegi kon bu boobaa léegi ñoom lan la mooy mujj am léegi dañuy mujj ñoom féetewoo ak chrétiens yi favoriser leen ànd ak ñoom pour lan pour mën a xeex jullit yi te loolu fi'lan lu am la moo tax ba'duhum awliyaa ba'd lan la ci yàlla teg subhaanahu wa taala benn xupp bu rëy daf ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum képp koo xam ne féetewoo naak ñoom ci yéen jullit yi maanaam minkum ci yéen jullit yi képp koo xam ne dem na mu féetewoo ak juifs yi ak chrétiens yi na xam ne ci ñoom la bokk léegi ah léegi kon ndakate am na ci féetewoo yi xeetu féetewoo yoo xam ne bu ko nit ki jagleelee yéefar yi léegi kon moom ci yéefar yi la bokk te fenlan atte yéefar la ko l'islam di atte donte ba léegi mi ngi considéré boppam ci biir l'islam di pratiquer l'islam moo tax am na ci luy ñëw cheikh al islam ibnu taymiya rahimahullah dafay wax ne léegi jullit bi dina jàng ihdina sirat al mustaqim صراط الذين أنعمت عليhim غير المغضوب عليhim ولا الضالين léegi dina ñaan yàlla subhanahu wa taala ci bis bi ay yoonu yoon ne ko yàlla nag ñu jubbanti ci yoon wi nga xam ne mooy sa yoon bu jub bi yoonu ñi nga xam ne da ngaa def sa ñoom ci xéewal ñu jub tegu ci siraatal mustaqim boobule tayib te bul ma teg mukk ci yoonu ñi nga xam ne almaghduba alayhim sa mer dafa nekk ci ñoom wala dallin wala ñi nga xam dañoo réer te ñi nga xam ne dañoo yàlla subhanahu wa taala meram dafa nekk ci ñoom mooy képp ku xam benn xam-xam jëfewuloo ko ñi ca jiitu mooy juif yi war dalluun liñ ci namm mooy ñi ci ëpp liñ wax mooy ne képp koo xam ne da ngaa bëgg a jaamu yàlla tegu ci yoon wi te amoo xam-xam da ngay réer ñi ca jiitu mooy chrétiens yi moo tax li borom xam ne dañu wax naan dañ naan man fasada min ulamaina fa fihi shabahun lil yahud wa man fasada min ubbadina fa fihi shabahun lil nasara borom xam-xam yi dañuy wax ne képp koo xam ne sànku na réer na ci suñuy borom xam-xam ñun xeetu islam kooku day am na nuroo gu mu nuróoleeg juif yi ndax juif yi ñoom noonu lañ mel dañoo xam dëgg ba pare bi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñëwee ñu nëbb ko suul ko lànk bañ koo jëfe kon ñoom dëgg boobu ñu xam bañ koo jëfe moo tax merum yàlla nekk ci ñoom naka noonu chrétiens yi tamit dañoo bëgg a tegu ci yoonu njub te ñoom xamuñu mu ne ñoom borom xam-xam ñu ne képp koo itam koo xam ne itam da bëgg a nekk ab jaamukatu yàlla ba pare réer di def lu bari ci say jaamu yàlla teguwul ci kaw njub mu ne ñu ne kooku dafa nuroo ak chrétiens yi ndax ñoom réer moom moo jiitu moo ëpp ci seen mbir moo tax diine christianisme li ci ëpp ci yàqute gi ci am juif yi ñoom ñoo ko ci def léegi cheikh al islam lan la wax daf ne bëri na jullit boo xam ne dina wax loolu ay yooni yoon ci bis bi te loolu lim ci na ma mooy fatiha bi nga xam nit ki ko jàng saa bu jullee ci bis bi juróomi yoon juróomi julli dina ko julli yoo xam ne julli gu ci nekk ci rakka bu mu dem dina jàng fatiha ñaan ci ñaan boobule mu ne bëri na ci ñun ci xeetul islam ñuy ñaan ñaan boobu te mu ne mi ngi bokk imma min al maxdubi alayhim wala mu bokk ci ñi nga xam ne addalluun imma mu bokk ci ñi nga xam ne meru yàlla dafa nekk ci ñoom wala mu bokk ci ñi nga xam ne dañoo réer mu ne loolu nag nit ku nekk war na ci bàyyi xel di xool ndax bokkul ci ñaari groupe yooyu kenn te bis bu nekk mi ngi taxaw di ñaan yàlla naan ko bu ma bokk ci ñaari ñaari yoon yooyu benn yoon kon da ngay gis ne ba léegi kii même bu fekkoon mi ngi ci biir l'islam yàlla lan la wax daf ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum beneen aaya lan la yàlla wax daf ne bashiril munafiqina bi anna lahum adaban alima alladina yattaxiduuna alkafirina awliyaa min duni almuminin ayabtaxuuna indahum alizza fa inna alizzata lillahi jamia yàlla dafa wax ne na nga bégal ñi nga xam ne ñooy munaafiquun yi nga xam ne dañoo wane islaam nëbb fas ci seen biir kéefér ndax munaafiquun yi muy wax fii mooy ñi nga xam ne munaafiq bi ñu def wala nifaaq bi ñu def mooy nifaaqul i'tiqaadi mooy nifaaq gi nga xam ne ci pas-pas nit ki lay nekk da koo gëm daal di fas ci biiram ak wedd yàlla wane ci kawam ak ngëm yàlla wane ci kawam lislaam ñoo ñu la yàlla wax ne na nga leen bégal bashir kalimatu al bishara la jëfandikoo léegi lan la ci borom xam ne dañ ne lii liñ ci namm mooy at tabkiit mooy ñaawal ndax bashir fi ñu ko daan faral di jëfandikoo mooy loo xam ni mbëgte lay lay wax ci mbëgte lay wax léegi mu leen di xupp ci mbugal mu tar ba pare di leen jëfandikoo kalimatu bashir léegi borom xam ne lañ coon def ne daf leen di ñaawal loolu moom pour gën leen a naqaral moo tax mu ne bashirhum bi azabin alim mu ne na nga bégal ñi nga xam ne ñooy naafeq yi ci mbugal moo xam ne mu tar la mu ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ah, léegi kon dafay melal munaafiquun yooyu nga xam ne ñoom la wax ne nanga leen bégal ci mbugal mu tar moomu mu leen di melool seen melokaan léegi nag melokaan bi kon ndakate bokk na ci melokaanu naafeq yi tayib léegi lan la wax daf alladina yattaxiduuna alkafirina awliya min duni almuminin mu ne mooy ñi nga xam ne dañuy féetewoo yéefar yi bàyyi fi jullit yi dañuy bàyyi ñi gëm yàlla defuñ leen ay féetewoo féetewoo leen bëgg leen comme nañ ko tekkee woon ci num nu mu weesoo ñu bàyyi leen fi dem féetewoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy kuffaar yi ñoom ñooy yéefar yi léegi lan la wax yàlla subhanahu wa taala dafa laaj benn laaj boo xam ne loolu mooy cause li tax ñoom ñuy féetewoo ak yéefar yi bàyyi fi jullit yi daf ne a yabtaxuuna indahum al izza ndax ñoom munaafiquun nii bi ñu defee loolu dem di féetewoo ak yéefar yi ndax dañoo dem pour sàkku ji foofu kàttan ak am-am loolu moo leen puus ci ñu dem di féetewoo ak ñu nga xam ne ñoom ñooy kuffaar yi ñoom ñooy yéefar yi waaye nag lan la ci yàlla teg daf ne fa inna al izzata lillahi jamian teddaange kàttan googu nga xam ne ñoom ñi ngi dem di ko sàkku ji ci yéefar yi mu ne nañ xam ne loolu day yàlla ak yonentam rek sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñoo ko baaxoo ñoom ñoo ko am kon ku koy ut foo koy utee mooy ci parti yàlla akub yonentam sallallahu alayhi wa sallam yàlla waxaat ci beneen aaya ne tara kathiran minhum yatawallawna alladina kafaru la bisa ma qaddamat lahum anfusuhum an saxita allahu alayhim wa fi ladabi hum xaalidun walaw kaanu yuminuuna billahi wannabiy wa ma unzila ilayhim attaxaduuhum awliya walakina kathiran minhum fasiqun yàlla subhanahu wa taala di waxaat ci ay gaa yu dëng yu jeng yoo xam ni dañoo jaarul ci yoon mu ne gaa yooyu dangay gis ci ñoom ñu bari ñuy dem di féetewoog ñi nga xamante ne ñooy yéefar yi mu ne day ñooñu la nga xam ne loolu la leen seen bakkan digal ba ñu def ko mu ne na nga xam ne loolu lu bon la lu ñaaw la ndax lam leen puus ci ñu def ko seen bakkan lim leen puus bañ def ko mooy yàlla subhanahu wa taala mere na leen meru yàlla mi ngi ci ñoom te itam ñoom dañuy sax ci mbugalu yàlla subhanahu wa taala tayib mu ne nag léegi bu fekkonte ni gaa yooyu nga xam ne ñi ngi dem di féetewoo ak yéefar yi gëm nañ yàlla subhanahu wa taala gëm li nga xamante ni moom la yàlla wàcce ci yonentam mu ne kon du ñu dem mukk di jël yéefar di leen def ay àndandoo di leen def ay péete di fi bàyyi jullit yi mu ne nag waaye lu ëpp ci ñoom dañoo nekk ay faasiquun mooy dañoo génn topp dañoo nekk ay kàccoor ndax léegi bu fekkee yàlla subhanahu wa taala nit ki ngëmam ngëm yàlla sax na ci xolu jaam bi ah léegi bokk na ci nattuwaay mooy day daal di bëgg yàlla subhanahu wa taala léegi bu bëggee yàlla dafay bëgg lu yàlla bëgg daal di bañ lu yàlla subhanahu wa taala bañ léegi yàlla subhanahu wa li mu bëgg mooy ñu bëgg jullit yi féetewoo ñoom ndax ñoom la yàlla subhanahu wa bëgg yàlla lu mu bëgg ci yow mooy nga bañ noonam yi nga xamante ni ay noonam lañ yu mu bañ nga bañ leen léegi yow nga ni da bëgg yàlla ndax gëm nga yàlla te boo gëmee yàlla mooy bëgg nga yàlla ba pare nga bëgg noonu yàlla yi subhanahu wa taala loolu waral ci yow nga féetewoo ñoom loolu kufru lay tegtale maanaam day tegtale ci sa xol ne ngëm yàlla nekkul ci sa xol ndax bu ngëm yàlla nekkoon ci sa xol mënuloo dem fekk ñoo xam ne ay noonu yàlla la ñu yàlla bañ nga bëgg leen comme bayit bi ñu jàngoon sànq muy poète boobu poésie boobu ñu jàngoon sànq lan lañ ci wax mooy ne mënoo ne danga nga maa bëgg ba pare dem fekk koo xamante ni sama noonu la nga bëgg ko def ko sa waay léegi ne man tamit sama waay nga loolu contradiction la lay dugal boo xam ne xëy na léeg-léeg mën naa am suñu jëflante suñu biir mais boo ko delloowaatee ci cadre diine loolu mënul nekk am beneen aaya boo xam ne moom la ñuy jeexalee ayat ndax ayat yi ñëw ci quran ci bunt bi bari na lool daf ne walladina kafaru baaduhum awliyaau baad illa tafaalu takun fitnatun fi l ardi wa fasadun kabir mu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay yéefar ñoom ñenn ci ñoom ay ay waay lañ dañoo féetewoog ña ca des yéefar yi ñoom ay waay lañ ci seen biir dañoo féete woonte ah mu ne léegi bu ngeen ko defulee <coughs> loolu lu muy tekki mooy bu fekkente ni jullit yi bàyyiwuñu yéefar yi ñoom ñu féetewoo ci seen féetewante ci seen biir mu ne kon fitna wu rëy ay wu rëy ak musiba bu rëy dina am ci kaw suuf yàqu-yàqu bu rëy ak ay wu dina am ci kaw suuf léegi yàqu-yàqu boobu ak ay bu rëy boobu lan mooy tax muy am ci kaw suuf mooy ne day mujj dëgg ak lu dul dëgg dafay jaxasoo ndax léegi bu jullit yi deful benn barrage ak benn séparation seen diggante ak yéefar yi nga xamante ni ñoom seen biir ni ñu mel meluñ koog yéefar yi nit ki dina mën a tàqale jullit yi ak yéefar yi mais bu ñu demee ba léegi jullit yi jaxasoog yéefar yi ni ñu mel ci seen biir ñu mel koog yéefar yi léegi kenn dootul xàmmeeti dëgg ak caaxaan kenn dootul xàmmeeti jullit ak yéefar loolu day daal di waral ci kaw suuf yàqute bu rëy rëy ak fitna wu rëy rëy boo xam ne moom mooy am ci kaw suuf yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne man ahaba lillah wa abgada lillah wa aata lillah wa manaa lillah faqad istakmala imaanuhu mu ne képp koo xam ne bëgg nga ngir yàlla bi bëgg ku mu mën a doon da nga koo bëgg ngir yàlla rek moom moo tax nga bëgg beneen intérêt ajuwu ci tey te yéefar bi mënuloo ko bëgg ngir yàlla wa abgada lillah nga bañ itam ngir yàlla maanaam ki ngay bañ ngir yàlla tax nga bañ sa jullit noonu kon da ngay gis ne kon jullit mbañeel mënta dox seen diggante lu dul mbañeel goo xam ne ku tënku lay doon du mën a yem ak mbañeel gi ngay bañ sa ki nga xam ne yéefar bu déclaré wu la lu tax loolu mooy jullit bi ci kanam tuuti dinañ ci wax ci bu fekkente ni nit ki war na koo am benn mbañal buy dox ci digganteem ak moom lu digg doomu lay doon lu tënku lay doon loo xam ne du àgg fenn fi ndax feek mi ngi ci lislaam rek am na lu mu am ci sa kaw comme droit boo xam ne war nga koo jox ci bëgg ko feek mi ngi ci lislaam loolu ñu ngi ciy ñëw léegi lan la lan la yonte bi alayhi salaatu wasalaam wax daf ne képp ku bëgg ci yàlla bañ ci yàlla joxe itam ngir yàlla tax mu joxe li mu joxe buy xañe tamit yàlla rek moo tax muy xañe loo xam ne da koy xañe mu ne kooku day ngëm yàlla mat na ngëm yàllaam mat na mooy am na ngëm yàlla subhanahu wa taala boo xam ne dina ko àggale ci mu nekk ku gëm yàlla kuñ mën a wax ne kii ku gëm yàlla la mu'min la maanaam ngëm yàlla manqué wul naka noonu ci borom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo fi jiitu woon ñu leen di wax salafu saalih te ñi ci jiitu di ashaabu rasul sallallahu alayhi wa sallam muy àndandoo yonente bi kenn ci ñoom mi ngi wax muy abdullah ibn masud mu ne law anna rajulan qaama yabudu allah bayna rukni wal maqaam sabaina sana la baasahu llahu maa man ahaba yowma alqiyama mu ne bu fekkoon dafa am benn waay boo xam ne dafa mën a jaamu yàlla mën a jaamu yàlla ba dafa dem ci màkka ci kaaba gi mu taxaw ci diggante fi ñuy wax a ruknu ci benn parce que kaaba gi léegi ay koñ la ñeenti koñ la dafa kaare ci benn koñ ci koñ bi ñuy wax ar ruknu wal maqaam mooy fi nga xam ne moom moo dend ak maqaamu Ibrahim mu taxaw ci diggante boobu nga xam ne ci place yi gën a tedd la ci kaw suuf mu nekk fa di jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at sabaina sana juróom-ñaar fukki at mu nekk fa di jaamu yàlla deful leneen lu dul loolu mu ne bu dekkee yàlla da koy dekkil mook ña nga xam ne ñoom la bu ñooñu la bëggoon maanaam léegi lu mu bëgg a tegtaloo foofu mooy yàlla yonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci benn xadis ne anta maa man ahab ahbabta aw il maru yubaas maa man ahabba maanaam léegi benn waaye dafa ñëwoon ci yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko léegi mata saa ya rasulallah léegi yow yonente yàlla bi kañ la bisu penc di ñëw yonent bi na ko fama a fama ahdatta lahu la aw laha maanaam léegi yaa ngi laaj bisu penc kañ lay ñëw loolu amul solo léegi bisu penc kañ lay ñëw nga xam ko amul solo moo tax yàlla ne woon fama anta min dhikraha maanaam léegi yow nga xam bisu penc yow yonente bi alayhi salatu wasalaam wax leen ko ban njariñ am léegi moo tax yonente bi bi waa ji ñëwee di ko laaj ne ko bisu penc kañ la def ne ko lan nga waajal bisu penc ndax loolu moo am solo yow yaa ngi laaj naan bisu penc kañ la ñëw lan nga ko waajal ngir bis boobu bu ñëwee nga yóbbaale ko ci bis bu tar boobu le léegi waa ji na ko man day wax dëgg yàlla dey bëgg naa yàlla ak yonentam inni uhibbu allah wa rasulahu yonente bi na ko anta man maa man ahbabta yonente bi mu waa ji na ko man bëgg naa yàlla akub yonentam yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko yow ak ñi nga xam ne ñoo ñu nga bëgg yéenay bokk fa ngeen jëm yéenay ànd ci la saxaabi bi riwaaye xadis bi ne bis boobu kontaan nañ kontaante goo xam ne mosuñoo kontaan kontaante gu mel noonu ndax xam nañ ci ñu xol ne ñun bëgg nañ yàlla bëgg nañ yonente bi alayhi salatu wasalaam léegi ci la Abdullah ibn Mas'ud waxee ne kooku nga xam ne dafa mën a jaamu yàlla ba nekk ci bayna ruknu wal maqaam mu def fa juróom-ñaar fukki at di jaamu yàlla mu ne bu dekki woon sax yàlla dina ko dekkil mook ña nga xam ne ñooñu la bëggoon kon loolu mooy wane ne kooku ndakate même bu fekkoon moom ci biir xolam mbëgg kuffaar yi yéefar yi dafa nekkoon ci biir xolam bu dekkee yàlla dekkil ko ak ña nga xam ñooñu la bëggoon te mooy kuffaar yi mooy yéefar yi ndakate kon jëmmi nga nekk ci biir ne di woote woon ne musulman nga julit nga nekk ci biir julit yi rek du mais sag mbëgg da nga koy jël nga jagleel ko jullit yi ndax loolu ci sa ngëm yàlla la bokk maanaam day bokk luy dëggal luy feddali sa ngëm yàlla ndax lu xasan al basri waxoon ne al imaanu laysa bi tamanni wala bi taxalli daf ne laysa al imaanu bi taxalli wala bi tamanni walakin maa waqara fi l qalb wa saddaqahu al amal maanaam ngëm yàlla du loo xam ni da nga koy mbubboo muy feeñ ñi rek ci kaw donte ngëm yàlla bu fekkee lu sax la day fës ndax loolu liy ñëw dina ko wane ci ay waxam mais dafa wax ne du looy mbubboo rek lu looy mbubboo mooy lan mooy ne doo mën a rek ñëw ne islaam benn yére la rek nga sol ko toog ne léegi kon sol naa yére bi maa ngi biir l'islam bi yem foofu mu ne wala bi taman nii wala ngay mbébét rek mbébét nekk ci biir jullit yi mbébét bokk ci ñi gëm yàlla ñi loolu doy la mu ne loolu du doy mu ne waaye ngëm yàlla luy sax ci xol la bu nekkee ci sa xol mu ne say jëf moo koy dëggal ah kon léegi ndakate nit ki liy sax ci xolam ay jëfam di ko dëggal loolu mooy li nga xam ne mooy ngëm yàllaam léegi kon bu fekkee li sax ci sa xol mooy bëgg kuffaar yi mënuñoo wax ne sa xol boobu ngëm yàlla mi ngi fa ndax ngëm yàlla gi ak bëgg yéefar yi dañuy dàqonte dañ naan dëddaane laa yajtamiaan ñoom ñaar mënuñoo fekkante ci benn xol loolu am na ci waxu euh, cheikh al islam ibnu taymiya boo xam ne wax na lu mel noonu mi ngi ñëw ci ci kanam léegi bu dee ci li nga xam ne mooy ashahadataan mooy seede ne ashhadu an la aw shahada muy seede ne ashhadu an laa ilaha illa allah gi nit ki di wax dugg ci biir lislaam muy seede ne laa ilaha illa amul lenn lu ñuy jaamu te jaamu googu ñu koy jaamu nekk loo xam ne ci kaw dëgg la tegu lu dul yàlla subhaanahu wa taala dong léegi seede boobu nit di seede nga xam ne mooy seede bu gën a rëy bu doomu aadama bi di seede dafa am rapport bu mu am ak noonoo ak yéefar bu rëy ndax léegi nit ki bu illa allah amul lenn lu ñuy jaamu ci dëgg lu dul yàlla subhanahu wa taala dafa am lu mu saxal ak lu mu dàq léegi dafa dàq lépp loo xam ne des koy jaamu te du yàlla subhanahu wa taala saxal ne yàlla dong lañu war a jaamu ci dëgg tayib léegi loolu du mën a mat ci moom mukk fekk setul ci lépp loo xam ne dañ koy jaamu te du yàlla ak ka koy jaamu maanaa léegi boo yow ne boo ñëwee léegi nga seede ne laa ilaha illallah nga dàq lépp loo xam ne shirk la muy bokkaale nga saxal li nga xam ne mooy tawxid te muy wéetal yàlla léegi sa loolu du mën a wér mukk fekk setuloo ci képp kuy bokkaale ak la muy bokkaale comme nu nga xam ne noonu la saxee ci li ibrahim def alayhi salatu wasalaam léegi ibrahim lan la wax daf ne wa id qaala ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'buduna illa alladi fatarani fa innahu sa yahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un léegi daf ne yàlla subhanahu wa ta'ala daf ne ibrahim alayhi salatu wasalaam dafa musoon wax waajuram bi ko jur ak ay nitam xeetam daf leen waxoon ne man day dama set ci yéen dama deñ ci yéen dama leen a dog yéen ak lépp loo xam ne da ngeen koy jaamu te du yàlla subhanahu wa taala mooy li nga xam ñoom daan nañ ko bokkaale ak yàlla subhanahu wa mu ne nag lu dul yàlla mi nga xam ne moom moo ma sàkk ndax moom day subhanahu wa taala dina ma jubbanti moom moom may jubbanti teg ma ci yoonu njub kon moom rek laay gëm moom rek laay jaamu mais leneen lu ngeen mën a jaamu te du yàlla dañ naa ci moom yéen itam dañ naa ci yéen kon léegi Ibrahim bi mu deñee ci xetam ba pare deñ googu mu deñ ci ñoom loolu la yàlla wax ne wa jaalaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi jëmmi kàddug deñ googu Ibrahim dañoon ci xeetam ak ci lañ doon jaamu la yàlla wax ne loolu jëmmi deñ googu la yàlla Ibrahim def benn kàddu goo xam ne da koo bàyyi woon ci ginnaawam ci ay descendants mooy ci ñi nga xam ne ñoom ñoo juddoo ci moom di ay sëtam ngir am ci ñoom ñoo xamante ni dañuy delluwaat ci njub daal di nekkat ci biir l'islam tayyib léegi ibrahim descendant yi nga xam ñoom ñoo ñëw ci ginnaawam ndax ibrahim bépp yonentu bu ñëwaat ginnaaw ibrahim rek ci ginnaawam la ñu wax waxuñ ko jamononteeg moom ko ñëw ci ginnaawam ci ay sëti nga bokk alayhi salaatu wasalaam te itam ci ibrahim la arab yi jóge ci ibrahim ci ay sëtam itam la juif yi jóge tayyib léegi bokk na ci leen ibrahim joxoon comme kóllëre goo xam ne bàyyi woon ko ci ginnaawam ci ay ak ay doomam mooy dañ ci yéefar yi ak lépp loo xam ne dañ koy jaamu te kalima boobu nga xam ne mooy kaddu googu nga xam ne moom la ibrahim bàyyi woon ci moom te baat boobu di tegtale dañ ci yéefar yi ak lépp lu ñuy jàmm mooy baatu laa ilaha illallah mooy baatu laa ilaha illallah kon ci la borom xam-xam yi waxee ne ndakate kon laa ilaha illallah ngir nit ki mën koo dëggal dëgg dundu ko foog mu set ci ñi nga xamante ni bi ay kuffaar lañ dañuy jaamu leneen dul yàlla kon ndakate ak noonoo ci boppam sax pour nit ki mën koo mën a matal laa ilaha illallah foog mu dund ko foog mu dëggal ko jafe ko léegi bu dee ci wàllu xàjjale li nga xamante ne bi moom mooy féetewoo ak noonu ci li nga xam ni moom lay nit ki di jëfe liy jóge ci nit ki dañuy wax ne daf ci am loo xamante ni dafa day delluwaat ci xolu nit ki ci fas-pasam li nga xam ne moom lay pas am loo xamante ni day delluwaat day feeñ ci ay waxam ak ci ay jëfam li nga xam ne moom mooy delluwaat ci xolu nit ki ci li muy fas ci wàllu féetewoo ak ci wàllu noonoo mooy lu mel ne bëgg koo xam nit ki dina ko bëgg ci xolam ak cofeel gu muy am ci biir xolam loolu dafay dellu ci cadre féetewoo léegi bu fekkee ñi ngay féetewoo am nga ci ñoom mbëggeel ak cofeel loolu ci sa xol lay dellu ci sa xol lay aju bu dee itam ci wàllu noonoo xol bi ba léegi lan mooy rôlam moom mooy bañ ak noonoo goo xam ne dina ko dina ko yëg ci biir xolam loolu ba léegi jëfu xol la boo xam ne sa xol moom moo koy jëf bu dee ci jëf yi nga xam ne moom mooy fës am na ci lu ñuy wax lu mel ne an nusra mooy dimbalante goo xam ne dina am moo xam ci bépp anam yi dimbalante boo xam nit ki dina ko dimbalante ak ña nga xam ne ñoom lay féetewoo moo xam day dimbalanteeg ñoom ci bakkanam wala ci alalam wala sax ci ay gisinam ci ay xalaatam mu koy dimbalanteeg ñoom bu fekkee def na ko ñenn ci wàllu féetewoo loolu bu boobaa dafay delluwaat ci ay jëfam naka noonu itam ci wàllu noonoo ba léegi tamit loolu dafay amaat ci lu mel ne masalan wax ak ci bakkanam ak ci alalam lépp doomu aadama bi mun na cee noonoo comme nu nga xam ne noonu la mën a noonoo ci xolam naka noonu léegi ci comme li ñu waxoon ne masalan parce que borom xam-xam yi dañuy wax ne ngëm yàlla subhanahu wa taala mooy loo xam nit ki da koy fas ci xolam wax ko ci làmmiñam jëf ko ci ay cëram léegi comme que ngëm yàlla gi nit ki di gëm yàlla dafay dafay xaajale ko ñetti xaaj yooyu te mooy xolu nit ki ak làmmiñam ak ay cëram naka noonu itam noonu la yi nga xamante ni moom la ñu wax te mooy féetewoo ak noonoo di xaajale ko ñetti xaaj ci li nga xamante ni moom la nit ki di jëf naka noonu tamit noonu la nit ki mën a jëfee noonoo gi wala féetewoo gi ci benn bu nekk ci ñetti cëram yooyu la léegi nit ki nag ñu xool ba xam moom matal na wala matalul dañuy xool ci ban la yem la gàttañlu ci cëram yooyu la bu fekkee koo xam ne dafa féetewoo ak jullit yi ci li feeñ ci biti ak ci li mu fas ci biir xolam kooku dëgg-dëgg am na féetewoo gu mat sëkk goo xam ne jagleel na ko jullit yi loolu du dugg ci cadre nifaq parce que li mu fas ci xolam ak li mu feeñal ci biti ñoom ñaar ñoom ñoo yem mu amaat beneen boo xam ne mooy lan mooy ki nga xam ne dafa féetewoog jullit yi wan leen mbëggeel wan ci ñoom ñeewent wan na ci ñoom la bokk wan na ñoom ñooy ay gaam ci ci ci li feeñ te ci biir xolam loolu nekku fa ci biir xolam yàlla moo xam gëmul loolu ci biir xolam loolu nifaq la mooy lu ñu doon wax sànq mooy nga nëbb kufru ci sa biir xol weddi yàlla weenal wane ci sa kaw ci sa ci sa kanam wala ci lu feeñ nga wane ci gëm yàlla subhanahu wa taala naka noonu itam bu fekkee nit ki wane na leneen loo xamante ni ute na ak noonoo wala mu fas ci biir xolam féetewoo goo xam ne féetewoo na ko jullit yi te wanewu ko ci ay cëram maanaam dafa toog rek gàttañlu wanewul ci benn ci ay cëram lenn luy wane na moom mii ku féetewoo jullit yi la mais loolu la fas ci biir xolam dañuy laaj ndax dafa am benn sabab boo xam ne moom moo tax moom mënut a wane féetewoo gi mu féetewoo jullit yi ak mbëgg gi mu am ci ñoom ak na ñoom ci ñoom la bokk te itam ay waayam lañ ñoom la waayoo bu fekkee dafa am benn sabab bu tax comme lu ñu doon wax sànq mooy dafay tiit ci diineem dafay dund ci situation yoo xam ne bu wanee loolu mu lor ko mu nëbb ko bu dee loolu la am na ngant mais bu fekkente ni amul benn ngant boo xam ne moom moo tax loolu du doy nit ki fas ci xolam rek ne moom jullit la ku bëgg jullit yi la ànd naag jullit yi ci jullit yi la bokk te itam ñoom la féetewoo waaye loolu feeñul ci ay jëfam googu féetewoo du doy mu boole ci li nga xamante ni moom mooy ay ay jëfam yi nga xam ne yu fës la ba léegi itam loolu comme ni mu amee ci féetewoo gi noonu lay amee ci noonoo gi bu fekkee nit ki dafa fas ci biir xolam ak noonoo ci digganteem ak yéefar mu wane ko ci ay cëram itam loolu lu mat sëkk la bu fekkee lu mu wane la ci biir ci biti te li mu fas ci biir xolam du noonu maanaa wane na moom ku bañ yéefar yi la àndut ak yéefar yi ndax dañoo weddi yàlla dañ leen war a bañ ndax ay noonu yàlla lañ te moom ci biir xolam am na genn ñeewante goo mu am ci biir yi ci yéefar yi ak mbëggeel goo xam ne am na ko ci ñoom ak féetewoo gu mu am ci ñoom loolu bu boobaa ni fàq lay tuddaat ba léegi comme nu mu nekkee woon ci ñaareelu xaaj bi ci almuwalaat naka noonu itam bu fekkee nit ki daf ko fas ci biiram rek li nga xamante ne bi moom moo fës ci kaw ah, gisuñ ci moom benn mbir boo xam ne day wane ne moom mii noonoonu yéefar yi loolu itam doyul fekk nit ki daal di wane ci biir ci biti fekkee fas na ci biir xolam mu wane ci biti noonoo goo xam ne gu mat sëkk la ndax sa li nga fas ci sa biir xol lan moo ko mën a dëggal mooy li nga xam ne moom ngay jëf moo tax borom xam-xam yi di wax ne al-zahir unwanul batin maanaa léegi nit ki sa kaaw sa li ngay gis ci sa kanam li nga xam ne moom mooy feeñ ci li ngay jëf loolu mooy adresse ci li nga fas ci sa biir xol bu fekkee yow ngëm yàlla nga fas ci sa biir xol yàlla subhanahu wa nga gëm islaam nga fas ci sa biir xol loolu moom moo war a fës ci sa say jëf moo war a présenté wu ci say jëf ndax sa xol moom mooy conditionné sa cër yi ñuy jëf moo tax yonente bi doon wax ne ala inna fi ljasadi mudga ida saluha ila ida saluhat saluha aljasadu kullu wa ida fasadat fasada aljasadu kullu ala wa hiya alqalb yonente bi daf doon wax ne ci xut ci benn xutba bu mu defoon muy wax ba ci biir waxam mu ne am na ci biir ci biir yaramu doomu aadama ci yaramam mu ne am na ci benn yàpp boo xam ni maanaam lu mu ci nam mooy benn yàpp boo xam ni benn suux bu nekk ci biir yaramu doomu adama mu ne suuf boobule am na ci importance lu toll ne bu jubee baax yaramu doomu aadama yëpp dafay baax yëwan ànd ak moom bu fekkee lu bon la lu jeng la yaramu doomu aadama bi yëpp dafay jeng ànd ak suuxu yàpp boobu nga xam ne moom moo nekk ci yaramu doomu aadama bi mu ne loolu mooy xol mooy ne bu fekkee nit ki daf ne moom li mu fas ci xolam lu baax la islaam la gëm loolu la fas fokk kon ay cëram di jëf lu baax loolu mu fas ndax li ngay jëf fokk mu nekk luy jóge ci yéene moo tax yonte bi ne woon innamal amalu binniyat jëf yi dafay nekk luy lu nit ki di def ci sababu li mu yéene maanaam li nga jëf da nga koo def ndax lan ndax dafa am loo yéene moo tax nga jëf ko maanaam bi ma jógee toog ci sees bi juguma rek toog ci nii damaa jug toog ci ngir lan ngir benn mbir moo tax ma toog ci soo jëlee ndox mi naan dafa am yéene bu tax nga def ko kon sa xol moom moo lay conditionné ci say réaction yi ngay def loolu moo tax itam nit ki bu fekkee dafa fas ci xolam dara loolu dafay présenté wu ci ay jëfam moo tax kon da ngay gis ne kon njuumte la nit ki di wax ne moom xolam rafet na gëm na yàlla gëm na l'islam ah mu bëgg a foofu ne kon moom du pratiquer l'islam mais léegi su fekkee gëm nga yàlla gëm nga l'islam condition lay doon pour dëggal sa mbëggeel boobu nga daal di pratiquer l'islam jëf ko moo tax yàlla subhanahu wa dafa joxoon jullit yi benn condition daf leen waxoon ne leen qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah dafa waxoon jullit yi ne leen bu fekkee bëgg ngeen yàlla subhanahu wa kon topp leen yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla dina leen bëgg léegi kon ndakate ah boo nee bëgg naa rek du dey foog mu amat yeneen conditions yu ñu lay jox yoo xam ne mooy dëggal sa mbëggeel le bokk na ci conditions yi dëggal mbëggeelu yàlla boo ne bëgg naa yàlla mooy nga topp yonente bi alayhi salatu wasalaam moo tax yàlla ne fattabiuni qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabiuni maanaam in boobu charte la fa bi moom mooy ja jawa ci euh, jawaabu charte am na leneen loo xam ne bokkul ak féetewoo ak noonoo mais dafay am maanaam rapport ak noono wala féetewoo ci ay mbir yu sew loolu la ñuy wax almudahana wal mudaaraat dafa am ci kalimatu ci baatu làkk arab lu ñuy wax almudahana ak lu ñuy wax almudaaraat léegi ñaar yooyu dañoo jegeente te bokkuñu nuroowuñ benn bi lu baax la nit ki war koo mën a def beneen bi baaxul almudahana mooy badlu diin li saalixi dunya mooy nit ki daal joxe lenn ci diineem ngir lan ngir intérêt àdduna maanaam léegi moom ñu chantage ko wala lu mu mën a doon rek mu nangoo accepter sacrifier lenn ci diineem ngir benn intérêt àdduna loolu mooy al mu mudaahana loolu mooy li yàlla waxoon ne wat waddu law tudhinu fa yudhinuun maanaam yàlla lu mu waxoon yonte bi alayhi salatu wasalaam ci suratu nuun def na ko yéefar yi day bëggoon nañ nga def mu mudaahana ba mu ñoom tamit ñu def ko fekk si la maanaam mu doon comme genre négociation yonente bi mi ngi pratiquer diineem ñoo yéefar yi parewuñ pour accepter lépp léegi am na ci loo xam ne neexu leen dañoo bëggoon léegi def genre négociation ak moom genre chantage pour lan pour moom mu bàyyi leen ñoom tamit ñu bàyyi leen loolu mooy al mudaaxana mooy léegi ñoom ñu moom mu reculer leen ñoom ñu reculer leen loolu mooy al mudaaxana léegi jullit bi warul def loolu nga xam ne moo tudd al mudaaxana maanaam warul accepter pour jëflanteeg nit ki moo xam yéefar la wala ku sàggan la ci diina koo xamante ni faasix lañ koy tuddee ku génn topp la ngir léegi jëflanteeg moom ci wàllu àddina mu nangoo sacrifier lenn ci diineem def lu ñuy wax mudaahana loolu lu xaram la mais am na leen lu ñuy wax almudaaraat mooy badlu addunia li saalixi diin aw dunia aw huma maan mooy nit ki nangoo joxe lenn ci addunaam loo xam ni moom ci bopp moom la concerné ci addunaam mais amul rapport ak diineem mu nangoo def boobu sacrifice ngir benn intérêt di ngent ngir benn intérêt addunaam wala ngir benn intérêt diineem wala sax ngir intérêt boo xam ne dafa am rapport ak diineem ak addunaam yépp léegi bu xoolee ba gis ne lii benn intérêt la boo xam ne intérêt yi diineem la bon bëgg na ko te léegi bu defee sacrifice boobu ci wàllu àddinaam la aju dina ko mën a am loolu la ñuy wax almudarat léegi loolu lu dagan la li siy tegtal mooy lan moo ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mës a toog ci néegam moo ko Aïcha radiyallahu anha soxnaam am benn waay bu tudd euh, na ibnu Hasna Uyayna benn waaye la boo xam yonent bi daf ko meloon ne ahmaqun mutaa maanaam benn dof la boo xam ni moom yàlla da koo may ay nitam giiram dañ koo toppoon déggal ko lool da daan faral nag di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa daan ko sonal ci yenn mbir yi léegi jikkoom baaxuloon jikkoom rafetuloon ndax da daan lor yonent bi ci ay waxam benn bis bi yonent bi toogee ak Aïcha radiyallahu anha ci ci këram mu daal di ñëw daal di fëgg nuyoo bi ko yonent bi séenee muy ñëw yonent bi ne bi sa axul qawm wala bi sa ibnul qawm aw bi sa axul ashira mu ne waa jii day ku bon la koo xam ne ci giir la bokk ci giir sàngam la bokk waaye ki ci gën a bon la bokk maanaam mooy ki gën a bon ci seen giir loolu la ko yonent bi wax nga xam ne léegi kon yonent bi melal na ko melokaanu mbonte ne moom dafa bon ne bi sa axul ashira tayib léegi bi yonent bi waxee loolu ci moom daldi ne na ngeen ko wax mu agsi dalal leen ko biñ ko dalalee permettre ko pour mu agsi mu ñëw toog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dal di ubbeeku ci kanamam fan basata ilayhi wa tatallaqa fi wajhihi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom dal di muuñal ubbeel ko kanamam nuyu ko waxtaan ak moom dalal ko bi waa ji demee Aïcha radiallahu anha ci li mu gis mbir mi yéem ndax nan la yonente bi sallallahu alayhi wa di waxee ci waa ji wax bu tàng boobu nga xam ne wax na ko ko laata muy ñëw melal ko melokaan bu bon boobu ba noppi itam waa ji ñëw te mu jëflanteeg moom jëflante bii nga xam ne moom la jëflanteeg moom nga xam ne ku baax daanaka moom moo ko yelloo mu ne ko nag mata ahidtani aw mata ahidtini fahishan ya aïcha inna charra annaasi inda allahi manzilatan yawma alqiyama man tarakahu nnaas ittiqaa fahshihi aw ittiqaa charrihi mu ne ko kañ nga ma mës seetlu ci man gis ci man ak mbonte yow aïcha waaye li nga war a xam mooy ka gën a bon place ba mu am fa mooy koo xam ne nit ñi dañoo dem ba di ko daw bàyyi ko ngir lan ngir moytandiku aw ayam wala moytandiku ay ñaaw-ñaawam te waa jooju loolu moom moo nekkoon ci moom loolu mooy ay jikkoom mooy Uyayna ibn na léegi lan la borom xam-xam yi déggee foofu ci xadis boobu dañ ci jëlee ay jàng yu bari bokk na ci bi ci jiitu mooy ndakate am na ci yenn façon waxi ni ci nit yoo xam ni melokaanu jëw lay am waaye du doon du am attey jëw ndax dañ ne alqatxu laysa bi gibatin fi sittatin mutadallimin wa muarrifin wa muxadiri wa mustaftin wa mujahirin fisqan wa man talaba al iaanata fi izalati munkari léegi dafa am ay mbir yoo xam ne borom xam-xam yi dañ koo def comme exception ne lii bu fekkee moo tax nit ki wax ci nit même bu fekkee wax boobu wax bu bon la du nekk jëw bokk na ci yooyu mooy muxadiri mooy ngay moytandikuloo nit nit nit am na benn mbonte bu nekk ci moom boo xam ne ragal nga keneen gis ko naagu ci moom waru ci moom xamul ci moom bonte boobu jaxasoog moom lor woowu jóge ci moom dem ci moom léegi yow ngir laayee biir sa mbokku jullit am nga pour dem moytandiku ko mbonte boobu nga xam ne gis nga ko xam nga ko ci waajooju te nekkul loo xam da nga koo teg ci njortu rek waaye lu ko xam la bu boobaa loolu du wax jooju ngay dem di ko ko wax du dugg ci jëw du dugg ci cadre jëw te loolu mooy li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam war def fii mënuroo wat tamit ak lu ñuy wax muarrif yi masalan nit ñëw ne la man day dafa am ku ñëwoon ne dafa bëgg a takk sama doom masalan diw léegi waa jooju day man xawma ko yonent bi lan la wax ida jaakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawijuhu bu fekkee koo xam ne gërëm ngeen diineem ak ay jikkoom dikkal na leen di sàkku ci yéen ngeen takkal ko mu ne na ngeen ko takkal tayib léegi yow nit ki ñëw na xamoo diineem xamoo jikkoom ah te yonent bi l'islam lan la joxe comme ay condition def ne man tardaw na diinahu wa xuluqahu léegi yow mën nga sol sa daal dem laajte ji diineem ak jikkoom léegi boo demee ci nit di ko laaj mu wax la ci moom li mu xam wax booba mu wax du dugg ci jëw du duggaat ci cadre jëw léegi pour bañ a dugaat ci parce que amaat na yeneen ba léegi tamit pour ñu àggale juróom benn yi xëy na dinañ ci jariñu incha allah léegi amaat na beneen bu ñuy wax mustaftin mooy koo xam ne dafay ubbee dañ koo laaj benn masala diw def nangam ñu laaj ko ko mu tontu bu boobaa kooku tamit dugg ci cadre jëw du dugg ci cadre jëw masalan léegi man am na ko def benn mbir léegi bëgg naa dem laaj ko benn borom xam-xam te pour ma laaj ko foog ma xëy na jaar ci tur bi expliquer ko li nga xam ne loolu la def loolu may def noonu di laaj du dugg ci cadre jëw ba léegi ak itam koo xam ne itam dafa nekk koo xam ne li muy def fisq la mbonte la mooy yàlla la goo xam ne def na ko te itam da koo fësal wane ko ci kaw kooku bu boobaa amatul xurma mooy amatul benn wormaal bu ñu koy wormaal ci bañ a wax ci moom nit ki mën naa wax ci moom wax jooju du nekk loo xam ne itam dafay dugg ci cadre jëw ak ci itam amaat na beneen boo xam ne mooy man talaba al i'anata fi izalati munkari koo xam ne dafay sàkk ku ko dimbali pour mu dindi benn mbonte ak benn ñaawte masalan ñëw ci nit di ñaan di ko ñaan pour mu dimbali la pour nit sàngam diw sàngam am na benn mbir boo xam ne def na ko nangam ak sàngam te war nañoo dox ci mbir moomu mbonte boobu yàqute googu deñ léegi bu boobaa loolu boo ko defee du dugg ci cadre jëw qad xalisat ak koo xam ne dañ koo tooñ laa yuhibu llahu aljahra bi suu min al qawli illa man zulim yàlla subhanahu wa taala bëggul nit ki di di yëkkati di wax wax joo xam ne wax kàddu gu bon la lu dul koo xam ne des koo tooñ koo xam ne dañ koo tooñ muy fayu di wax ak àqam bu boobaa kooku itam dugg ci cadre jëw ba léegi léegi nga gis na kon xadis boobu muy xadisu Aïcha boobu borom xam-xam yi jëlee nañ ci jàng bu rëy mooy ne ndakate loolu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci Uyayna ibn Husn loolu nekkul jëw benn la ñaareel ba mooy li tax ñun ñu tudd ko fii mooy ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa def ak moom li ñuy wax almudaaraat mooy dafa naxanteeg moom xam na ni kii jikkoom nii la mel jikkoom baaxul te mi ngi jëflanteek moom mun mënta ñàkk a moom ah léegi mu jëflanteeg moom jëflante boobu nga xam ne moom la def ci xadis bi te loolu du ko wàññi dara ci diineem waaye nag jox na ko lenn ci àddunaam ndax toog naak moom ubbil ko kanamam ubbee waxtaan ak moom loolu yàqaloo ko dara ci diineem loolu lañu ñu tuddee mudaaraat te naxante na moom moo tax am ci yeneen euh, texte yoo xam daf ne munaafiqun axsha an yufsida alayya gayrahu maanaam munaafiqun udaarihi axsha an yufsida alayya gayrahu benn munaafiq la boo xam ne damay naxante ak moom may ragal mu yàqal ma keneen ku dul moom léegi am na ay sabab yoo xam ne mooy tax nit ki mën a fexe ba loolu nga xam ne moom lañu doon wax comme moolaat te muy féetewoo jullit yi mu fexe ba mu matal ko taxaw ci sabab yooyu bokk na ci al ikthar min mutaalaati al quran maanaam léegi sabab yooyu nit nga xam ne war na cee jéema a fexe góorgóorlu ci sabab lu ci ngir mu mën a taxaw ci mbir bu màgg boobu mbir bu rëy boobu nga xam ne mooy féetewoo ak yi bokk na ci nit ki di bari lu muy jàng al quran di ko settantal ngir lan ngir mu def ci xolam ragal yàlla subhanahu wa taala ngir itam di ko fàttaliwaat taxawaayam ci diggante ak mbokkam ak jullit yi ak ci digganteem ak ñi nga xam ne duñu ay jullit moo tax yàlla di wax naan afala yatadabbaruuna alquran am ala qulubin aqfaluha ndax ñoom dañ dul settantal alquran di ko jàng di ko settantal wala ndax ci seen xol ya dafa am lu ko tëj loo xam ne moo ko muur ba tax bu ñu jàngoon alquran itam duñ ko mën a duñ ko mën a dégg duñ ko mën a xam yonent bi itam mi ngi wax naan taallamu alquran wasalu llaha bihi aljanna qabla an yataallamahu qawmun yasaluuna bihi dunya fa inna alqurana yataallamahu thalatha yu yubaahi bi wa rajulun yastakulu bi wa rajulun yaqra'uhu lillah yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon wax naan jàng leen alquran da ngeen laaj yàlla subhanahu wa taala mu wërsëgal leen ci aljanna bu ngeen ko defulee day dina am ñoo xam ne dinañ ñëwi ji di ko jàng te ñoom li taxoon ñu koy jàng mooy dañ koy jàng ngir am ci àdduna da ngay gis ko xam day toog wàcce kaamilam bu paree ngir lan ngir ñu jël ko ci benn place wala ngir mbir sàngam bu mu doon mu am ko maanaam daal li tax ñuy jàngal alquran nekkul na dañ koo sellal seen yéene ngir seen alaxira ngir yàlla subhanahu wa taala fay leen ci ëllëg mais dañ koy jàng ngir àdduna moo tax mu ne na ngeen ko jàng qabla an yataallamahu qawmun yasaluuna bihi dunya mu ne fa inna alqurana yataallamahu thalatha mu ne alquran ñetti nit ñoo koy jàng ci nit ñi mu ne rajulun yubaahi bihi am na koo xam daf koy jàng ngir ran ngir puukarewu ci wane ne moom dafa mën a jàng alquran kooku digganteem la ak boromam la digganteem ak yéeneem la yàlla subhanahu wa taala moom moo xam mbiram keneen koo xam ne rajulun yastakulu bihi koo xam dafay jàng alquran ngir di ko dundee maanaam yonent bi dafa tere woon dundee alquran dundee ko ci ban anam yu bari la yoo xam ne ay xaaj yu bari la allahu alam parce que fa am masaay surtout lu mel ne par exemple jàngale alquran ndax nit boo ko doon def mën na cee am fay masala boobu borom xam-xam yi dañ cee uute dañ cee uute ci euh, ñaari euh, anam lañ ci uute ñenn ñi nee nañ loolu dugg ci lekk al lekk ci alquran ñenn ñi dañu wax ne loolu day dugg ci lekk alquran dafay yàq jëf ndax yàlla moo ne wa ma umiru illa li yabudu llah muxlisina lahu ddin wa rajulun yaqra'u alqur'ana lillah ak koo xam ne dafay jàng alquran ngir yàlla subhanahu wa taala rek tax léegi kon bokk na ci sabab yu njëkk yoo xam ne nit ki war na cee góorgóorlu ngir mën a taxaw ci féetewoo boobu nga xam ne war na koo féetewoo mbokk jullitam yi muy jàng alquran di ko settantalaat fu mu toll ñaareel itam mooy ngëm yàlla subhanahu wa taala goo xam dina nekk ci xolu nit ki loolu dina ko gën a dëgëral tamit ci mu mën a taxaw ci féetewoo googu nga xam ne dina ko féetewoo ay mbokk jullitam ndax lu ñu waxoon mooy ne bu fekkee nit ki bëgg na yàlla gëm na yàlla loolu day waral ci moom mu bëgg yàlla subhanahu wa taala ndax lan la yonte bi waxoon daf ne woon zaqa taamul aw salaasatun man wujida fiihi wajada bihinna xalaawat al iman mu ne ñetti mbir a ngi yoo xam ne képp ku mu nekk ci moom dina am ci ñetti mbir yooyu cafte ngëm yàlla subhanahu wa taala xalaawat al iman bi ci njëkk dafa ne woon an yakuna allahu wa rasuluhu ahaba ilayhi mimma siwahuma yàlla ak yonentam nekk loo xam ne ñoo lay gënal leneen lu ñoom ñaar léegi bu la yàlla ak yonentam gënalee leneen lu dul ñoom ñaar dafa am loolu lu koy dëggal mooy lan mooy ne dootoo jiitalati ci mbiru yàlla ak yonentam keneen ku dul ñoom ñaar maanaa léegi da ngay jiital yàlla jiital yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te doo jiital keneen ci ñoom ñaar loolu bokk na ci mandarga yi wane nit ki ndakate yàlla la gën a bëgg ak yonente bi la gën a bëgg leneen lu dul ñoom ñaar ba ci sax bànneexu bakkanam comme ni ñëwee ci affaire Omar ibn Khattab boobu moo waxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ma gën a lépp ba mu des sam bopp mu ne ko ba sax sa bopp yow Omar yonente bi ne ko ba ci sam bopp sax mu ne ko léegi nag léegi nag yow Omar loolu kon lu muy tegtale mooy ne ndakate nit ki kon bu ndigalu yàlla taxawee ak yonente bi alayhi salatu wasalaam moom lay jiital ci leneen lu ñoom ñaar bu tere yàlla taxawee itam ak yonente bi alayhi salatu wasalaam moom lay jiital ci ñeneen lu dul ñoom ñaar loolu ci mandarga yi mbëgg yàlla ak yonentam mbëggeel goo xam ne moo féete kaw leneen lu mu mën a doon ci la bokk naka noonu itam yonente bi ne an yuhibba al mar la yuhibbuhu illa lillah te itam buy bëgg nit mu bëgg ko ngir rek yàlla subhanahu wa moom moo tax nga gis ne kon ba léegi itam dañuy jariñoo foofu féetewoo goo xam ne nit ki kon ndakate bu boobaa dina ko féetewoo ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm yàlla ñoom ñoo taxaw ci yoonu yàlla subhanahu wa taala beneen bi ci asbaab yi nga xam ne mooy tax ba léegi nit ki xëy na gën a mën a féetewoo ak jullit yi mooy tajannabul xilaaf bayna al muslimin mooy di moytandiku uute ci diggante jullit ndax léegi uute bu amee par exemple benn mbir bu amee ci diggante mbokk yi nga xam ne ñooy dund diine mu waral ci ñoom uute léegi uute googu seytaane mën na koo exploité ba mu def ci biir ay xol ñi nga xam ne ñoom ñëw uute def ci seen biir xol benn façon noonoo boo xam ne dina am ci seen biir ndax bu uute amee fil xaalib su ngeen moytuwul day daal di am ñaari clan yoo xam ne mooy am mu daal di indi xàjjalikoo léegi xàjjalikoo boobu bu amee rek ci la ko seytaane di exploité léegi daal di jur benn mbañeel gu ndaw boo xam ne dina am xëy na ci bidaaya bi ci tàmbali gi ci xolu jullit boobu nga xam ne moom moo uute ak mbokk jullitam léegi nag uute moom mënul ñàkk masalan uute dafa bëri ay façon am ci boo xam ni bu mën a nekk la boo xam ne islam ŋàññiw ko am ci façon uute yoo xam ne islam daf ko ŋàññ uute yi nga xam ne islam ŋàññiw ko lu mel ne nit ki nit ñi uute ci li ñuy wax furuul fiq maanaam al masaailul masaailul furuu mooy masaayil yi nga xam ne ay masail la yoo xam ne dafa détaillé wu ci wàllu fiq ci yenn mbir yi ci wàllu fiq yi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala am na ci ay masail yoo xam ni borom xam-xam yi ñoom ñoo ci njëkk a uute laata ñun ñuy ñëw yooyu bu fekkee ay tegtal ñëw na ci nekk tegtal yoo xam ne xëy na dafa général kii am ci déggin bi te du ma wax ñun de ci borom xam-xam yi laay wax ndax xëy na ñun dañuy jëlaat rek ginnaaw bi li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi wax ñu doxal ko tayib léegi aalim benn borom xam ñëw moom déggee ci texte bi ne dafay tegtale ne mënees na cee déggee ne lii lañu war a jëfee kii déggee ci ne déedéet waaye liñ ci war a déggee moo ne lii la si war a mën a jëfe te ñoom ñaar ñëpp ñu bokk jëfe dalil dëgg tax a jóg mais ñu uute ci seen wàllu déggin ak ci lan lañ war a jiital ah bu boobaa genre uute yu mel noonu mënut a ñàkk ci fiq ndax borom xam-xam yi depuis ci jamono saxaaba yi dañoo tàbbi ci uute yu mel noonu kon loolu ba léegi mën na am ci biir jullit yi nga xam ne ñoom ñooy dund benn diine bi te du waral seen biir ak noonoo du waral seen biir ñuy daggante ndax loolu lu mën a am la beneen uute bi nga xam ne moom lañ mënta wax mooy uute gi nga xam ni mooy delluwaat ci wàllu pas-pas delluwaat ci wàllu doxalin wàllu manhaj loolu moom fil xaalib kooku uutewul pour ngeen ànd yéen ñaar pour ngeen féetewonte bokk nekk mbokkoo dina jafe ndax day delluwaat ci lu ku nekk ci yéen ñaar fas te bu fekkee nit ki ni nifaq nekkul ci moom li mu gëm li muy pratiquer moom la gëm ci xolam xaqiqatan ku muy bëgg di ànd ak yow di jëflanteeg yow ci kaw loolu mu gëm la mën a natt foo ca toll ci kaw lu toll noonu lay mën a jëflanteeg yow loo ko sori kem sori soriwaay bu toll noonu dina ko soreek yow nga gis na kon bu boobaa genre kii li ñuy wax al xilaaf fil furu fil usul mooy ci li nga xam ne mooy delluwaat fil aqida pour bu boobaa nit ki féetewoo euh, euh, noonoo ci ak kim ci kim ci uuteel bu boobaa dafay yomb loolu dafay am genre uute gu mel noonu nag moom moo warul di am ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñooy dund diine mooy di def li ñuy wax ixtilaaf fil usul ci li nga xam ne wàllu mbir yi pas-pas la ak mbiru doxalin nga xam ne wàllu gisin bi nit ki di doxee diineem di ko dundee la loolu fil xaalib li ci ëpp koo ko amal da di noonoo da ngeen di uute da ngeen di noonoo da ngeen di uute li ci ëpp donte léeg-léeg ci yenn anam yi dina mën a am nit ñi ute ci yenn ci masaayil yu mel noonu yoo xam ne àggul fenn fi te terewul ba léegi dinañ mën a nekk mais li ci ëpp mooy kooku uteel du ngeen mën a jëflante bu desee nag li nga xam ne moom moo jàlloo jàngoon jàlloon sànq te mooy alxilaaf fil furu' mooy furu' al masail bu boobaa moom wax dëgg yàlla warta jur noonu ci diggante ñoo xam dañuy dund diine ndax masala boo xam ne yow masalan léegi borom xam-xam yi ñoom ñoo ñëw rahimahumullah am li ñuy wax martabatul al ijtihad àgg ci daraja boo xam ne mën nañoo ijtihad ci texte yi gis texte sàngam mën koo interpréter jëlee ci ay tegtal ne lii lañ ci mën a tegtaloo tayib ñooñu borom xam-xam yooyu nga xam ni deesul sikki sàkka ci seen yéene bu sell ak ci seen xam-xam ci dëgg moo leen a jóg bu fekkee ñoom seen biir ci li fi jiitoon ñoom ñu uute ci ay yu mel noonu ñun ñu ñëw nekk ñoo xam ne dañuy dañuy topp ci seeni tànk rek amaguñu tollaguñu fenn fi amuñu benn xam-xam léegi bu ñu ñëwee ñun suñu biir yow nga ijtihaad ci ñaari gisin yi nga xam ne boroom xam-xam yi am nañ ko ci masala bi kii gisee na nii kii gisee na nii yow nga góorgóorlu sa kéemtalaay kattan xool ñaari gisin yi ban moo la ci gën a convaincre nga jël ko jëfe ko wallahi bu boobaa am nga def nga li nga xam ne loolu la la islam sant loolu moom mooy li nga war def léegi keneen def li nga def moom mu gis beneen gisin bi kooku noonoo wartu dox seen diggante ŋaayoo warta dox seen diggante ndax ku mel ne ibni taymia cheikh al islam rahimahullah dafay wax ci iqtidaa sirat al mustaqim di wax ne genre xilaafaat yu mel noonu am nga sañ-sañu saxal li nga xam ne moom nga gis jëfe ko mais bis boo dàqee li keneen ki jëf rek nee na juum nga te loolu fil xaalib koo gis mu am boobu xat-xat ndax loolu xaqiqatan léeg-léeg dina jur ci biir ñuy dund diine yenn problème te koo gis mu am xat-xat bu mel noonu nanguwul am tolérance ci genre masail yu mel noonu xamal ni gisinam dafa gàtt ndax li tax ngay inkaar di dàq loolu mooy xëy na ni nga ko waroon a peegee xamee ko ni déggee noonu texte yi dalil yi dafa des ci yow xëy na da liir benn téere gis ne lii la loolu convaincre la mu àgg ci yow fenn nga daal di jàpp ne loolu rek moom mooy lu ñu war a mën a jëfe mais waxuma nag nit ki masalan ubbi buntu bi rek ne islam mi ngi nii léegi sunna bi tolérance la lu neex waaye na jëf non non man waxee ci cadre boo xam ne bu tënku la mooy lan mooy masala yoo xam ne dañ koy jëfe te am ay text yu jóge ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam yoo xam ne moom moo ci ñëw borom xam-xam yi nga xam ne ñooy jëfe sunna boobu di ci tegtaloo uute ci ñun ñu ñëw ñun itam uute boobu ñu tàbbi ci ci yooyu masala laay wax léegi bu boobaa nit ki nga xam ne amul ci masala yooyu tolérance laa wax ne ci njuumte la tàbbi ñaareel ba itam lu muy tegtale mooy gisinam ak gëstoom dafa xat dafa yaatu moo tax masalan koo xam ne xëy na da ngaa nekk comme sama classe gi da ngaa nekk kuy soog a jóg ci wàllu ut xam-xam da ngay ragal da yàlla tuuti ci wàllu wax ak imposer benn gisin ci genre masala yu mel noonu ne lii rek mooy li wér mooy li ñu war a jëfe leneen lu dul loolu nga ni dee su ko accepté ndax loolu bis boo ko defee rek di dugg ci ay njuumte te boo gënee dox tuuti ci xam-xam rëcc gu ma gu rëy a rëy dina la dal dina la dal moo tax da ngay gis ne xatta saxaaba da nga daan gis ne léeg-léeg yenn masaa yi dañ ciy ute te kenn ci ñoom du dàq li nga xam ne moom la sa morom def mais ñoom ñëpp li leen tax a jug moom mooy dëgg mooy tamit dëgg la ñuy ut naka noonu itam ba léegi nit ki war nay góorgóorlu ci setal dënnam ak xolam ci digganteem ak mbokk jullitam yi ci bépp mbañeel goo xam ne dina tàbbi ci xolam ci diggante mbokk jullitam mu koy jéem a xeex ak mu bañ leen di leen wor ci wan leen loo xamante ni nekkul ak li nga xam ne mooy li am ak itam bañ di am ci ñoom ñaaw njort loolu yëpp bokk na ci yi nga xam ne itam mooy tax nit ki mën a góorlu taxaw ci féetewook jullit yi léegi bu fekkee yow masalan danga am ci sa xol loo xam ne dencal nga ko say mbokk jullit ci lu mu mën a doon ci mbonte yooyu nga xam ne tudd nañ ko loolu mën na dox sa digganteeg say mbokk jullit ba indi sabab ay noonoo te noonoo googu le warul am ci sa digganteeg sa mbokk jullit masalan lu mel ne su us dann ñaaw njot loolu mbir la boo xam ne am nañu ko yàlla subhanahu wa taala nattoo léeg-léeg mën na sax nekk feebar ci nit ki nga xam ne moom ci jëmi boppam neexu ko mais loolu lu am la ci moom mais dafa am ay feebar yoo xam ne bu la dalee comme nu ngay feebaree di siburu dem naan garab wér am na feebaru xol yoo xam ne bu la dalee itam noonu ngay demee itam traité ko faj ko mu wér bu fekkee yëg nga ko ci sa bopp waroo koo bàyyi da war a jóg def li ñuy wax mujaahada xeex ak sa bakkan ngir dindi feebar yooyu faj ko comme boo yëgoon sa bopp di metti ni ngay demee utiliser benn garab naka noonu lu mel ni xasad mooy keñaan boo xam ne danga koy am parce que keñaan mooy soxoree nit ci dara wallahi li ci mucc ci doomu adama yi lu néew lañ benn bis yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa toog saxaaba yi toog ci wetam mu ne bu ngeen toogee tuuti day am na benn waay boo xam ne ci waa aljanna la bokk buy feeñ tuuti buy feeñ ci yéen saxaabi bi muy abdullah ibn amr ibn al-As mu ne bi ñu toogee tuuti benn waay bu bokk ci waa ansaar tëll nee na mi ngi jàpp ba pare njooy tooyitu njàppam sax mi ngi siit sikkim bi mi ngi toq ndox mi ngi jël ay dàllam takk ko ci loxo càmmoñam di ñëw nee na bi mu ñëwee toog ñu daal di bàyyi noonu nee na ca suba ga yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxaat wax ji mu waxoon démb ne bu ngeen toogee tuuti nit ku bokk ci waa aljana dina dina tëll nee na ñu toogaat tuuti waa jooju tëllaat ci même melokaan bi mu feeñee woon démb mooy tool mi ngi génn fekk mi ngi soog a pare ci jàpp ba tooyitu njàppam sax mi ngi mi ngi rolongaan ci sikkimam mi ngi takk dàll yi ci loxo càmmoñam nee na ñu toogaat ci beneen bis ba ci ñetteelu fan bi yonente bi waxaat wax ji mboxoon nit ki nga xam ne moo feeñoon tamit feeñaan ci même melokaan bi nee na bi mu ko waxee nag ma ne waa jii day foog ma jéem a lijjanti na mu def ba lii mu am mu am ko ndax yi dañoo feroon ci yiw bi nga xamante ni loolu am na biñ toogee ci jataay bi ba jataay bi tas Abdullah ibn Amr ibn al dafa dab waa ji dem na ko man dey dama xuloo ak sama waajur génn suñ kër ne dootuma fa dem dootuma fa fanaan fan yëpp léegi est-ce que mën nga ma héberger ma nekk ci yow ba baa sama ak moom di rafetoo léegi loolu la ko wax pour mën a dem nekk ak waa ji ci këram waa ji na ko loolu amul solo mën nga ñëw ñu dem mu dem nekk ci kër waa ji nee na ma fanaan ak moom nee na wallaahi gisuma ne waa ji am na benn jaamu yàlla bu rëy boo xam ne mu ngi koy def te gisuma ne nit ñi nii ñu ngi koy def ndax li mu doon séntu mooy waa ji day xam naa julli lay fanaanoo du du dog rek wala nangam maanaam li ko doon séntu ci jaamu yàlla gu rëy ci waa ji bi mu demee gisu ko nee na bi ma fanaaneek moom daal seetlu naa leen mooy ne bu waa nelawee ba fi mu tëdd mu ñàq fi dina di walbatiku te buy wëlbatiku day takbiir ak di tahlil day wax allahu akbar ak di wax ay subhanallah wala muy def li ñuy wax ay adkar noonu lay def di wëlbatiku ci ni mu tëddee daal di def noonu di def noonu nee na bañ noddu waa ji jug dem julli ji léegi nee na bi ma defee loolu ay fan ma daal na ko nag man sëñ bi wax dëgg yàlla day jotewu mag sama waajur dara waaye dama mës a toog ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ci yow nangam ak sàngam mu nettale ko mbir mi yépp ni mu demee ne ko nag léegi ma bëggoon a xam mbir moomu yow foo jaar ba am waaj na ko man day ni ngi ma gisee nii rek nii laay dundee dinaa def samay jàmm yàlla comme ni ma waree loolu rek fa laa yem Abdullah ibn Omar daal di ne ah comme que noonu la baax na daal di dem bi muy dem la chaque ne nit ku nit wax loolu di nga ne ah kon kon waa ji kay ndax mu ndaxate moom mook ñëpp a yem mais bi muy dem bay bëgg a dem waaj ji na ko déet kaay am na de lenn lu ma la mën a wax itam ci man mooy ne amul kenn ku may gis yàlla defal ko lu aw yiw lu dinaa ko ko yéene kontaan ci amul kenn itam ku may koo xamante ni yàlla dina ko defal masalan lor ma ciy kontaan ci sama biir xol amul kenn koo xam ne nit ku mu mën a doon rek sama xol mucc na ci yow set nga ci sama biir xol dencalu ma la dara ji na ko lii nga am nag ñun moom lañ tële waaw saxaabi bi na ko lii fa nga ñu rawee nga gis na kon ndakate salaamatu sadr muy xol bu mucc lu jafe la loo xam ne nit ki war na cee góorgóorlu jëm cee yar boppam maanaam eh, kii ci faj boppam même bu fekkee yëg na yenn feebar yi dafay am ndax lépp man xataa ba ci lu jiitu ci borom xam-xam yi dañ daan wax naan borom xam-xam yi ci seen biir léeg-léeg dañuy am ci seen biir ki ñaan guy dox ci seen biir ndax neexul masalan nit nga siiw nii rek nit ñi xam la nga ci jékki-jékki benn waay jóge fee gaa yëpp boobee ko dem ci moom dégg nga léegi moo fi nekk moom la nit ñi di dem di ubbee mu lu ñu wax nit rek ci mu sag nite même ak loo ragal ragal yàlla léeg-léeg foog sa xol am leen lu ci nekk tuuti ndax doomu aadama noonu la ko yàlla bindee tayib léegi loolu bu fekkee nit ki yëg na ko ci xolam daf ko war a jëm a xeex moo tax am na ci yenn athar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon digal kenn ne ko wa ida xasatta falaa tabaxe bu fekkee dem nga ba mënatoo koo muñ sa xol am na lu mu lu mu lu mu lu ci nekk tuuti ci keñaan ci diggante benn nit xëy na doon ngeen njëkkalante ci dara mu raw la ci ah léegi mu ne bu boobaa na nga fexe ba bul dew ci kaw ki nga xam ni moom nga moom la si mbir boobu dox sa diggante moom bul ko ko wan ci benn ci say wàllu jëf bul ko ko wan itam ci leen say wàllu wax mais na ko jéem a faj naj ko ci sa xol loolu bokk na ci mbir yi nga xam ne nit ki war na cee jéem a moytandiku góorgóorlu ci kémtalaay kàttanam bu ko defee mu mën a taxaw ci mbir boobu nga xam ne moom lañu doon wax ci féetewoo ak jullit yi léegi boo féetewoo ak say mbokk jullit am na luy dox sa digganteeg ñoom ci wàllu léeg-léeg nga leen di dimbali ci lenn moo xam ci loo xam nit ki day taxaw ci diggante mbokk jullitam ci jàppale ko ci benn soxlaam bu muy waaje bu mu bëgg a def ndax loolu sunna la goo xam yonte bi sallallahu alayhi wasallam digal digal na ko jullit yi te itam wax na ngëneel bi ci am mooy sa mbokku jullit masalan am benn ajo nga dimbale ko ci mu sotti wala nga ànd ak moom jug dem dox mu faj aajo ba mu faj aajo boobu nga soog a dellusiwaat ak itam dem ziyaara ko ak itam di léeg-léeg par exemple nga jël benn hadiya jox ko di ko ñaanal bu amee problème nga dimbale ko ci di dimbalanteeg moom ci wàllu diineem di conseillanteeg moom loolu yëpp dafay delluwaat ci cadre loo xamante ni day wane sa féetewoo boo xam ne féetewoo nga ko say mbokk jullit ndax doone féetewoo naa leen rek mbokk yi samay waay lañ bëgg naa leen tëju ci sa ruq toog jàpp sa njàmbur mais loolu dafa am lu koy dëggal ci say jëf sa diggante ak ñoom tolerance bi ngay am ci ñoom ni ngay jëflante ak ñoom loolu yëpp daf ciy jeexital mu nekk ay jeexital yoo xam nit ku nekk war na ci jéem a di ci def kéemtalaay kàttanam di ci def kéemtalaay kàttanam ngir loolu gën a taxaw gën a sax ci xolam bu dee nag ci wàllu li nga xam ne moom mooy noonoo pour léegi nit ki jéem a taxaw ci góorgóorlu ci am na tamit ay sabab ba léegi sabab yi bokk na bi ci jiitu mooy nit ki jéem a moytandiku bànneexu bakkanam ndax nit bu fekkee yow léegi sa bànneexu bakkan moom ngay jugé moom nga topp wallahi di nga féetewoo ay yéefar ndax li la neex rek bu fekkee ci ngay nattee mais nattewoo l'islam nattewoo li neex yàlla subhanahu wa taala foog nga féetewoo ak yéefar yi ndax bu boobaa say intérêt ngay xool sa bànneexu bakkan ngay xool fu mu la xëcc jëmee fa nga topp ko léegi ah incha allah léegi sa intérêt fan la nekk ci yéefar yi la wala ci julliti la loolu intérêt sew la moo tax léegi kon nit ki dafay jéem fexe mooy tëndiku bañ a topp bànneexu bakkanam ci bunt bi nga xam ne mooy buntu féetewoo ak buntu noonoo mais mu jiital ci islam ci li nga xam ne moom moo neex yàlla subhanahu wa taala ak itam di góorgóorlu di jéem a fexe di mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy yéefar nga leen di mooy ci di bañ a ànd ñoom ak di bañ a dëppoo ak ñoom ci li nga xam ne loolu la ñuy jëf ndax léegi yow boo dee dëppoo ak yéefar yi ci li ñuy jëf même bu fekkee bi nga koy def fekk na yow boobu ak noonoo moo nekkoon sa xol sa digganteeg ñoom bëggoo leen woon moo taxoon nga koy def la fekk nga leen di toppandoo di niroog ñoom loolu mën na dem ba def ci sa xol ak jeexital ci mbëggeel ndax léegi nit ki boo demee ba fan ko ci benn mbir gis ci moom benn particularité ci ni muy doxalee doxalee ba tax yow nga ko ci fekk si di ko ci toppandoo wallahi loolu soo moytuwul rek mu sabab ci yow benn mbëggeel goo xam ne di nga ko daal am ci moom léegi ndax léegi toppandoo ci boppam dafa am lu muy tegtale maanaam la fekk nga bëgg a mel na nit ki ci benn comportement ci ay comportement dafa am lu muy tegtale mooy xëy na am na lenn loo xam ne mi ngi ci sa xol ci accepté boo xam ne accepté nga ko li muy def ba tax nga nangu ko cee fekk si mais bu fekkee yow da nga doyloo li nga nekk muy lislaam fekk jiwoo yéefar bi di niroog moom ci li mu nekk loolu moom moo gën a dëgër ci nga gën a noonook yéefar bi gën koo sori mais boo commencé di am accepté gooy accepté yéefar bi ba di ko fekk si di niroog moom di ko toppandoo loolu mooy daal di doonaat beneen sabab boo xam ne day tax nga dem ba léegi yow mbëggeel ak féetewoo gooy féetewoo yéefar daal di tàbbi ci sa xol moo xam yëg nga ko wala yëguloo ko amaat na beneen bunt boo xam ne moom mooy ñi nga xam ne léegi ay jullit lañu te nekkuñu ay yéefar yoo xam ne dañuy wax ne kii yéefar la mais jullit la boo xam ne mi ngi ci biir lislaam léegi yow am na benn noonoo goo xam ne mën na xew ci sa diggante ak moom léegi noonoo boobu naka lay demee ak ndax dafay ñuroog noonoo gi nga xam ne moom la nit ki di def ci digganteem ak yéefar yi tayib léegi noonoo gu nit ki di def ci digganteem ak jullit yi ci digganteem ak koo xam ne dafa gëm yàlla nekk ci lislaam dafay am ay limite yoo xam ne moom la ko nit ki di limité mooy ne nit ki danga koy natt ci ngëm yàlla natt ko ci diineem kem kem te lay lu mu taxaw ci gëm yàlla subhanahu wa taala lu toll noonu nga war a féetewoo ak moom lu toll noonu nga ko war a bëggee kem lu mu gàttañlu ci gëm yàlla ak lu mu gàttañlu ci taxaw ci lislaam kem lu toll noonu la war a am ci sa xol ci mbañeel ak ci mere goo xam ne di nga ko ko mere nga xam ne loolu kon uute na ak mere ak mbañeel gi nga xam ne di ko bañ yéefar yi mais kii dafa nekk koo xam ne faasiq lañ koy tuddee mooy ku génn topp koo xam ne dafa day mooy yàlla subhanahu wa taala léegi kéem moom nu muy moyee yàlla kéem lu tol noonu la ko nit ki war a amal ak mbañeel ak nooneel ci xolam ndax mooy yàlla googu muy def yow boo ko ci merewul noonu ko ci day mel na kon da ko ko accepteel da nga ko ko bëggal te loolu bu boobaa yow ci sa mi bopp mooy nga ci yàlla subhanahu wa taala ndax yàlla daf laa bañ loo jëf boobu nga xam ne mi ngi koy jëf kon moom kéem lu muy jëf-jëf boobu kéem lu tol noonu nga koy nga koy mere ci kaw jëf boobu muy jëf mais waroo ko accepter ak mooy yàllaam googu nga xam ne mi ngi koy def bi bi bi xog mi lan ci attew rek ne ndax julit la donte julit la waaye julit bu génn topp la ah kon léegi sàggan na ci diineem ba léegi dafa génn topp kàccoor la kàccooram googu nu mu toll nu toll noonu nga koy meree loolu tamit benn maquillage la boo xam ne bu jafe la nit ki nit ci natt ci boppam nit ki fexe ba maandu ci ci digganteem ak boroomam ndax léeg-léeg yeneen mbir moom moo lay moo lay yóbbaale bu fekkente ni nit ki léegi demee na noonu léegi yow ban jëflante ngay jëflante ak moom ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy mooy yàlla te nekk ay yëf ay jullit ay xaaj lañ am na koo xam ne dafay mooy yàlla mooy yàlla goo xam ne day lor nit ñi matalan koo xam day agressé doomu aadama yi léegi kooku nga xam day agressé nit ñi di jël seen alal di leen lor ci kiyam kooku moom loram dafa nekk gu réy goo xam ne day waral bu boobaat ci nit ki bu fekkente ni mën mën na ko dagg mu dagg ko dagg digganteem ak moom dog ko ndax lorom boobu nga xam ni day jóge ci ci moom di delluwaat ci nit ñi su fekkee nit ki mënut a fegu lorom mun a fekk ay waajooju la da koy dog am keneen koo xam ne day mooy yàlla mais mooy yàllaam xëy na ci moom lay dellu waaye amaat na beneen rapport bu mu amaat ak doomu aadama yi mooy dina delluwaat tuuti ci nit ñi ndax moom sabab la ci lor guy jóge ci moom di delluwaat ci nit ñi masalan borom baar koo xam ni nee na jullit la mais dafa ubbi baaram ci koñ bi nit ñi dafa ñëw di naan sàngara ay caga di fa ñëw nit ñi di fa def lu bon di fa mooy yàlla ah tayib léegi moom sabab la ci lan ci monte di gën a tas kooku itam jegewul nekkul ak xëy na ku ku njëkk ki yamuñu tak takk mais jegante nañ lool kooku itam ba léegi nit ki dina jéem a fexe jëfandikoo ci digganteem ak moom ay jumtuwaay ci mën koo laaye biir ak daawa ko mu loolu nag laaye biir ak daawa boobu uti na trop ak léeg-léeg nit ki mën na ñeewante ci kaw nit ki am ci digganteem moom cofeel gu am bëgg ko tayib léegi mu bëgg koo layalee ne moom daf koy laaye biir daf koo bëgg a daaw moo tax loolu sa digganteeg sa borom la léegi bu ñu la waxee ne la nit ki danga koy bañ ci sa biir xol danga nga war a noonoo sa biir xol ndax mbonteem googu mu nekk loolu nag warut la tere nga mën koo laaya biir jéem a fexe noo ko daawa pour mu deñ ci mbonteem googu ñëw ci njub tayib léegi yow nga def contraire bi bëgg waa ji ba pare am ci moom ñeewent bëgg koo layal ci kaw ne danga koy daawa moom moo tax loolu maa ngi jus maanaam léegi amaat keneen koo xam ni kooku ku mooy yàlla la ba léegi mais moom kaa moom moo gën a tuuti moo gën a oyof mooy kan mooy koo xam ni moom mbonteem ak mooy yàlla ci moom rek lay dellu koo xam ne masalan dafay def yenn mooy yàlla mun koo mun koo jubbanti ngir mu delluwaat ci njub génn ci mbonteem googu nga xam ne mu ngi ci ba léegi tamit loolu nit ki da koy nattaat rek ci kéem loo xamante nit ki gàttañ lu na ko ci taxaw ci diineem kem lu tol noonu nit ki loolu nga ko war a bañ loolu nga ko war a noonu loolu moom mooy balance bi nga xam ne ki war na ko teg ci kanam ci kanamam di ci di ci peese doomu aadama yi ci digganteem ak ñoom ci jëflanteem léegi bu dee ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ahlul bidaa moom tamit buntu la boo xam ne xaqiqatan bunt bu yaatu la bëggoon nañ ci wax mais léegi ñu waxaat ci beneen tomb boo xam ne moom mooy li ñuy wax léegi alhajr mooy léegi nga dog nit ki bu ñu nit ki léegi da nga koy war a bañ ci kaw mbonte googu nga xam ne nekk na ko léegi ci mbañ googu léeg-léeg dina àgg ci degré foo xam ne àgg na fa ak noonoo da nga koo war a dog dog sa digganteeg moom léegi dog googu ngay dog sa digganteeg moom am na ay sabab benn sabab bi mën na nekk parce que da ragal mbonteem googu jóge ci moom ñëw ci yow wala du sax danga nga ragal mbonte gi jóge ci yow ñëw ci moom mais xëy na booy ànd ak moom keneen mën na cee naw yaakaar ne waa ji li mu nekk lu baax la moo tax yow nga accepté ko di ànd ak moom loolu yëpp ay façon mbonte la yoo xam ne nit ki masalan buy ànd ak nit koo xam ne ku bon la mën na cee juddoo ndax léegi masalan comme lu ñu doon wax sànq li yàlla wax ne illa tafalu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir bu jullit yi ràññeelu koowul ak yéefar yi lii am ci kaw suuf mooy lan mooy fitna ak yàqu bu rëy ci ne kenn dootul mënati xàmmee dëgg ak caaxaan kenn dootul mënati xàmmee jullit yi ak yéefar yi loolu mooy am ci nit ki buy ànd ak koo xam ne nitu caaxaan mooy day dem balan keneen mën na waroo ci kaw ànd gi ngay ànd ak moom nekkoon waa ji li mu nekk dëgg la ba tax mu accepté waajooju ak li mu nekk sa si sa sabab yow ndax gis na la ngay ànd ak moom te léeg-léeg fexlan ñenn naxaatekat yi nga xam dañuy nax nit ñi ci wàllu àddina dañ leen di triyande ñuy def loolu dañuy jéem a fexe ba ànd ak koo xam ne ku ki ñuy bëgg a nax am ci moom rafet njort la bu ñu ànd ak moom ba ba kooku am ci ñoom confiance ñu soo koo nax nga gis ne naka noon noonu tamit noonu lay amee ci wàllu jëflante ci diggante ak sa nit ñi léegi bu fekkee ci wàllu koo xam ne dem nga ba foo xam ne da nga war a dog léegi am ay xadis yoo xam ne moom moo ñëw di tegtal di tere nit ki dog digganteem ak mbokk jullitam lu ëpp ñetti fan mais xadis boobu ci na ko borom xam-xam yi tontoo mooy dog koo xam ne da nga sa mbokk jullit ci gàttañlu sa digganteeg moom ci lan ci bañ koo seeti bañ koo nuyu bañ a yittewoo ay mbiram ba ëpp ñetti fan loolu am na ko wax am ñoo xam dañu wax ne li nga xam ne moom la ci bi sallallahu alayhi wasallam nam mooy meroo goo xam ni li ko waral du mbiru diine boo xam ni moom moo tax nga def ko mais mbiru àdduna la rek boo xam moo dox seen diggante nga mere ko ñetti fan yonente bi nee na warul ci jullit muy mere mbokkam lu ëpp ñetti fan mu ne bu ñu dajee ñoom ñaar ka nga xam ne moo njëkk a nuyu moroomam kooku mooy ci gën kon ñetti fan la ko tënk waaye boobu mere mooy mere boo xam ne day delluwaat ci mbir bi leen bool bi leen boole ba ñoom ñaar ñu am problème mbiru diine mbiru àdduna la mais bu dee nag mbiru diine la dafa def benn mooy yàlla gu rëy boo xam ni da nga ko cee mere ne ko fekk delluwuloo ci ginnaaw bàyyi sa mooy yàlla gi maak yow pare nañ dogoo nañ ah bu boobaa nga xam ne léegi yow danga nga koo def pour lan pour jubbanti ko pour loolu dis ci moom ba tax xëy na mu rëccu tuub ndax xëy na yow nit ku tedd nga ci moom koo xam ne boo ko dogee dina ko metti bu boobaa boo defee loolu même bu matoon ñaari weer du ci wàññi dara ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñetti ñooñu nga xam ne bi muy dem xare Tabuk te Kaab ibn Malik bokkoon ci ñetti ñooñu nga xam ne ñoom ñoo toogoon demuñu te dara jotu leen woon amuñu woon benn ngant bi yonente bi ñëwee jógee ci xare boobu munafiqu ni ñoom dañoo ñëw di fen pour ay ngant mais ñoom dañoo ñëw wax dëgg ne ñoom dañoo toogoon demuñu te amuñu benn ngant ci la leen yonent bi digal julliti ne bu ñu waxatee ak ñoom nañ leen bàyyi ba bàyyi yàlla di wàcc atte pour xamale seen mbir fan lay mujjee ñooñu nekk nañ ci biir jullit yi lépp weer yàlla nit ñi duñu wax ak ñoom te yonent bi moom moo ne waroo towoo sa mbokk jullit waroo koo dogoo lu mat ñetti ñetti fan te nuyuwuloo ko ci la ko borom xam-xam yi xamloo maanaam jël xadis boobu aj ko ci loo xam ne ci loolu lay lay aju naka noonu tamit bu fekkee da ngaa dog nit ki ba mu àgg ci bu la nuyoo doo ko fay loolu tamit am nga ci sañ-sañ ci ne loolu maanaam dog boobu nga xam ne dog nga ko dafay tënk xadis yi nga xam ne moom moo ñëw di tegtale ne dañoo war tasaare xam-xam suñu dañoo war a tasaare nuyoo ci suñu diggante mooy mën dem ba ci bu ki nuyoo doo ko fay yow itam boo ko rombee doo ko nuyu ndax da koo dog te itam mu tegul ci loo xamante ni lu la islam sant la mais du rek benn intérêt àdduna ni seen diggante rek nga mere ko toog lu mat ñetti fan yéen ñaar du ngeen tuddante loolu daganul léegi kon bu fekkee ci wàllu ñi nga xam ne ñoom ñooy ahlul bida moom dafay dugaat ci yeneen détails yoo xam ne yu bari la yoo xam ne xëy na lu ñu soxal la itam ci suñu jamono ji mais waxtu bi moom moo ko matewul ñu ngi jégalu ci loolu di ñaan yàlla subhanahu wa xëy na bu ñu boolee beneen jëmmi jamono buñ ci mënee fàttalante suñu biir ñu waxtaanaat ci ngir xam at attey tamit féetewoo ci wàllu ki nga xam ne moom mooy ahlul bida ñu xam bu baax lan lañ ci nam léegi ci gàttal ci li nga xam ne moom lañ fi jot a wax mooy léegi dafa am lu ñuy wax féetewoo ak noonoo boo xam ne islam daf koo digal jullit bi nga xam ne moo nekk ne dafa gëm yàlla am nit ñoo xam ne yàlla daf la digal ne la na leen féetewoo bëgg leen far ci ñoom bokk ak ñoom am ñoo xam ne daf la sant ne la nanga leen noonoo bañ leen ci sa xol ci say jëf itam nga bañ leen bul bokk ak ñoom léegi ñii ñooy jullit yi ñii ñooy yéefar yi ci biir jullit yi itam am na si ñoo xam ne itam di nga noonoog ñoom dinga nga leen bañ waaye du doon bañ goo xam ne dina mel ne comme yéefar yi mais day doon kéemtalaay seen taxawaay ci biir lislaam ak seen gàttañlu loolu lu nit ki war a xam la ci dundam gi nga xam ne da koy dund ci kaw suuf te itam mu ragal yàlla ci digganteem ak boromam xam ne loolu luy delluwaat la ci xolam lu mu war a jéem a fas la ci xolam itam ndax loolu luy dëggal la itam ngëm yàllaam gi mu gëm yàlla ndax nit bu gëmee yàlla bëgg yàlla bëgg li yàlla subhanahu wa taala bëgg bañ li yàlla subhanahu wa taala bañ bu fekkente ni daf ne bëgg na yàlla di bëgg li yàlla bañ di bañ li yàlla bëgg subhanahu wa taala loolu contradiction la dafay weddi ngëmam googu nga xam ne mi ngi wax ne gëm na ko wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi muhammad alhamdulilahi xaq xamdi wa sallallahu wa sallama ala rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi wa wafdihi ci li jàlloon ci biir wax dafa am loo xam ne itam jar na fàttali daal mooy léegi noonoo gi nga xam ne moom la islam digle ne nañ ko noonoo yéefar yi du tegtal du tegtale itam ne nit ki warta rafetal jëmale ci ñoom ci yéenewu woote jëmale ci islam ndax léegi nga dëkk ak ay nit masalan ci société bi ngay dund am ci ñoo xam ne ay yéefar lañ jëmmi nga noonook ñoom bañ leen ci sa xol uuteeg ñoom loolu du tegtale ne ci sa biir jëflanteeg ñoom doo rafetal jëmale ci ñoom te rafetal googu ngay rafetal doon rafetal goo xam da nga koo def ndax danga nga am ci ñoom faiblesse wala ndax danga leen a bëgg mais dangay rafetal di jëmale ci ñoom ngir lan ngir ñu am ci ñeewent ci islam ngir bëgg l'islam ngir mën a tuub dugg ci l'islam kon da nga koy def ci yéenewu daawa leen ngir ñu dugg ci l'islam loolu benn point la boo xam te lu jar a bàyyi xel la bu dee ci wàllu li ñuy wax ak tashabbuh bil kuffar fi libaas maanaam léegi nuroo ak yéefar yi ci wàllu solin loolu masala la boo xam ne xaqiqatan masala bu jafe la boo xam ne borom xam-xam yi dañ ci wax yu bari yoo xam ne pour nga am ci benn règle général dafay jafe ndax léegi yonte bi alayhi salatu wasalaam def ne man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum mu ne wat laysa minna man tashabbaha bi gayrina mu ne koo xam ne da ngaa nuroo nuroolu ak ay nit yaag ñoom yéen bokk ci ñoom nga bokk mu ne waat tamit ku nurooloo nuroolu ak ñeneen ñoo xam ne duñu jullit yi mu ne bu yeboo nga xam ne kon bokkaloo ci jullit yi nga léegi kon nit dafa war a jéem a fexe fu mu mun a toll di uute ak ñi nga xam ne ñooy yéefar yi ci melokaanam ci mandargaam mu ute ceeg ñoom bañ cee nuroog ñoom léegi nag mu des lan mooy daabitu tashabbuh maa lan mooy règle bi ñu mën a wax ni moom lañu ñu tëral ne lii ku ko def nuroo nuroo nga ak yéefar yi léegi ndax dañuy wax ne yére sàngam ak yére sàngam ak yére sàngam ku ko sol nuroo nuroo nga ak yéefar yi wala dañ naan yére bu mel sàngam yére bu mel na sàngam yére bu mel na sàngam ku ko sol dugg nga ci nuroo nuroolu ak yéefar yi tayib léegi yére yi nga xam ne ñoom dañ koo jagoo di ko sol ñu leen koy xàmmee di leen ko la mu nekk loo xam ñoom ñoo ko baaxoo jullit bi dem fekk si leen ci nuroo nuroo ak ñoom ndax ñoom ñoo ko baaxoo ñoom lay mandargal nga dem fekk si leen ci nuroo nuroo nga ak ñoom tayib léegi loolu lan moo koy atte li koy atte mooy li ñuy wax ak mbaax li li nit ñi baaxoo xam ci société bi ñuy dund ci loolu lañ ko mën a attee mais kenn mënu cee teg benn règle générale ci àdduna bi yépp ne lii moom mooy doon règle bi par exemple boo demee fu ma ne Indonésie da ngay fekk seen góor ñi dañuy woddu somali seen góor ñi dañuy woddu fii boo fi woddoo nit bu dajegoo dañ naan da nga da nga nuroo nuróolu ak jigéen léegi yow nga tegoon fii Sénégal benn règle ne képp ku woddu da ngaa nuroo ak jigéen léegi règle boobu bu ko nit yenoo fi yóbbu ko somali kon danaan somalien yëpp dañuy niroo nuróolu ak jigéen kon léegi indi benn règle ci bunt boobu noonu tëral ko nii rek dafay nekk lu jafe tuuti léegi yëre boo xam ne par exemple dem na ba ñëpp xam ko ci jullit yi ak ci yéefar yi ñoom ñëpp ñu koy solandoo tayib léegi mu dem ba loo xam ne mënatul waxat mënatu kenn mënatul wax ne lii mandarga la boo xam ne mandarga yéefari la seen sol la boo xam ne ñoom lañ ko xamoo ñoom ñoo ko baaxoo di solo bu fekkee yére bi àgg na foofu l'islam li muy wax moo day tëral ay règle ci yére bi ne yére bi na mel nii na mel nii na mel nii na mel nii bu ko melee bu boobaa l'islam dina ko mën accepté bu ko melulee l'islam du ko accepté bu boobaa loolu la islam di def mais bu fekkente ni maanaam bugguma wax dugg ci détail tudd ay yére parce que dama xam masala boobu yan ixtilaafaat ñoo ci am ci borom xam-xam yi ndax ñenn ñi ci ñoom dañoo wax ne yére sàngam ak yére sàngam day ku ko sol dugg nga ci nuroo nurooloog yëfër yi ndax yëfër yi ñoo ko baaxoo di sol ñeneen ñëw weddi loolu ne yëre yi yëfër yi baaxoo wuñ ko sol yëfër jullit yi ñoo ci yem léegi te kenn mënu cee tëral règle générale te comme que léegi jullit yeeg yëfër ñoo ci yem li ñu mën a wax rek mooy tëral ay règle ne lii moom la moom la islam santaane ci yëre góor lii la l'islam santaane bu dee yëre jigéen moom ala kulli moom moo gën a nekk lu moom duñ ci sax wax ñun ci yëre jigéen ci góor la wax tey léegi bu dee ci yére yére boobu noonu dañu wax naan lii la ci lislam santaan ni nii la yére góor war a mel bu fekkee loolu daje na ci yére bi yére boobu jullit bi war na koo mën a sol mu des nag yére yooyu nag ban moo ciy dugg ban moo ci dul dugg li may déggal mbokk yi mooy ñu laaj ku ma gën a am xam-xam ci bunt boobu te masalan bu bu ngeen laajoon ku mel ne Cheikh Ahmad Lo wala Cheikh Hassan Ka allahu alam bi question mbokk mais est-ce que la ban conseil la mbokk yi xam ne bii jógee fii xaal léegi bu dee koo xam ne dinaa ko répété incha allah léegi day laaj koo xam ne dafay jóge ci dëkk yi ñuy dund dem di jàngi ji extérieur tayib léegi bu dee jàngi ci extérieur loolu wax ju yaatu la ndax xamuñ extérieur fu mu fay jàngee xamuñ ba xam fa mu jëm l'islam foofu la ëppee këf fii ñuy dund ndax xëy na fii léeg-léeg nit ki dina naagu jàpp ne ci société bi muy dund société la boo xam ne dañ fiy dund lislaam dañuy wax ne ay jullit a ngi fiy dund ci biir société bi mais ndax société bi l'islam lay dund loolu kenn si ñun a koo wax léegi nag dangay ngay jàng ji extérieur fi ngay jàng ji fan la tayib bu dee foo xam ni dëkk boo xam ni du dëkku jullit du dëkku l'islam weddi yàlla moom moo fa tas mbonte moom moo fa tasaaroo dañ lay wax ne la bu fekkente ni nit ki léegi li muy uti ji foofu am na rafet njott ne mën na koo am fii ci sàmm diineem ci xelam gën a dal ci ne bu toogee fii ci lay gën a mën a sàmm diineem bi muy dund ak pas-pasam sàmm boppam te li mu bëgg a amee ji foofu mën na koo am fii ci loo xam da koy jàng rek ci xam-xam bu boobaa dañ koy ko toogal fii nga jàng sa diine ndax lan la borom xam-xam yi wax dañ ne laa yuarridu almumin nafsahu lil fitan wusuqan bi nafsihi bal yasalu llah al aafia dañ ne léegi nit ki du dem gaaral boppam ay fitna ngir ne dafa am confiance ci boppam dafa wóolu boppam waaye dafa laaj yàlla subhanahu wa taala ngir mu muccal ko ndax yonente bi danaan toog ak saxaaba yi radiallahu anhum ci benn guddi boo xam ne dañoo waroon a xëy xare ak seen i noon mu ne leen laa tatamannaw liqa al aduw fasalu llah al aafiya mu ne leen bu leen mbébét mukk dajeeg seen i noonu maanaam léegi yéen jug ngeen ngir ñëw xeex si ñëw ba ci fi ngeen war a xeexee ngeen campé fi di war a suba xëy dajeeg seen i noonu yonente bi di leen tere ne bu leen mbébét dajeeg seen i noonu fasalullah al aafiya na ngeen ñaan yàlla subhanahu wa taala mu muccal leen lan la ci teg def ne fa ida laqitumuhum fasbiru waalamu anna al jannata taxta dilali suyuuf mu ne nag bu fekkee dem ngeen nag ba yàlla dogal ngeen dajeeg seeni noon mu ne na ngeen muñ te xam ne aljanna mi ngi ci suufu keri jaas yi mi ngi ci suufu keri jaas yi tayib léegi kon da ngay gis ne kon ndakate nit du mbébét daje ak noonam du mbébét jël boppam gaaral ko ay fitna ndax yàlla def ne wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu leen jël seen bopp ngeen gaaral ko loo xam ne daf leen di alak léegi foo xam ne yow da nga xam ne fii diine amu fi kàttan weddi yàlla moom moo fi féete kaw mbonte daf fee tas ba loo xam ni kenn du ko sikki sàkk kenn du ko werante léegi yow nga jël sa bopp sànni ko ci société bu mel noonu te wóoru la ba xam boo fa demee di nga mën a résister mbonte boobu di nga mën a résister weddi yàlla googu ak mbonte googu nga xam ne moo fa nekk ah dañuy wax de nit day wax dëgg yàlla sàkkuwul ci àdduna bi lu gën a am doole lu gën a foor ci moom diineem kon bu fekkee li ngay sàkku ji foofu day mën nga koo am fii te nekkul ngant ci yow nga dem li gën mooy nga toog bañ a sànq sa bopp bañ a gaaral sa bopp ay fitna tayib léegi bu fekkee dem nga ba gis na yow lii dugg na ci cadre ngant borom xam-xam yi day nee nañ nit mën naa dem tukki ci dëkk boo xam ne dëkk yéefar la ci ay condition mooy lan mooy bu fekkee day uti ci foofu xam-xam boo xam ne jullit yi soxla nañ ko te amul fi mu dëkk wala muy dem foofu ngir commerce tijaara jaay ji ñëwaat wala jënd ji ñëwaat wala mu feebar feebar boo xam ne mënu koo fajoo fi mu dëkk mu dem faju ji ci dëkk boobu nga xam ne ay dëkk yéefar la lii moom borom xam-xam yi wax nañ ko ci ay exception yoo xam ne nit ñi nit ki war na mën a tax mu dem dëkk ji ci biir te wala mu dem sax ci biir yéefar yi ndax yonte bi doon wax naan man jaama al mushrik wa sakana maahu fa huwa mithluhu képp koo xam ne dafa dund ci biir ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla nekk ay mushrik woon mu dëkk ak moom nekk ak moom comme nu nga xam noonu la nit ki di nekk ak dëkkandoom yëgul ak moom benn xat-xat mu ne bu defee loolu xam ne ñoom ñaar ñoom ñoo yem mu waxaat ne al mu al mumin aw al muslimu wal mushrik la tatara naaruhuma mu ne ki nga xam ne dafa gëm yàlla ak ki wedd yàlla seen safara duñ gisante seen safara duñ gisante mooy lan mooy ne safara bi ngay taalee di togg ak safara bi muy taalee di togg duñ gisante mooy yéen ñaar du ngeen dëkk di dend loolu la ci namoon loolu mooy liggéey mooy nit ki bu mu dëkk ci biir ñi nga xam ne ñoom ñooy yéefar te feex la nit ki bu dëkkee ci biir yéefar yi mu bañ ko mu nangu ko day jeexitalu ci ñoom ci seen waxin ci seen doxalin ci seen jëfin ci seen i jikko lépp da ciy jeexitalu mu nangu ko mu bañ ko fil xaalib nit ki bu buy bëggee dem bu ko bëggeel bi jàppee ci xolam du ko nangu du ko accepté boo ko waxee ne ko yaaxi bu fekkee ci dëkku yéefar yi nga jëm dëkk sangam ak sangam boo fa demee sa diine nangam ak sàngam lu mu xam dina la ko wax ngir bëgg a dem mais bu demee bu fekkee dëggu na boo ko laajee dina la wax ne feexlan li nga ma waxoon am na ndax da ngay am fitna pour dund sa diine te boo demee ba yëg ak xat ak suufee ci sa wàllu diine yi ak kufru weddi yàlla féete la kaw génn féete kaw gi foog mu jeexital ci yow te loolu fexlan nit bu demee dund ji ci dëkk yooyu bu ñëwee day jeexital ci moom ndax dañuy faral di wax naan al insaanu ibnu biatihi nit doom la ci société bi muy dund mooy société bi dafay jeexital ci moom wallahu alam bu ree ak ak taamul maa ahlil bidaa buntu bu rëy la am na benn borom xam boo xam ne bañ na ku am xam-xam la koo xam ne ci loolu la def thèse doctoram doctorat koo xam ne ci loolu la def thèse du doctorat ko ci euh, jaamatu islamique mooy université islamique bu Médine maanaam thèse doctorat boo xam ni lépp ñu ngi ko bind ci ñaari tom ñaari mujallat yoo xam ne lépp ci traité jëflante diggante ak ahlul bidaa la kon nga xam ne mënumaa tontu laaj boobu ci jotaay bii nii allahu alam ndax ahlul bidaa dañu am ay xaaj ku nekk ci xaaj yi am na noo war a jëflanteeg moom laaj boobu nekkul laaj boo xam ne dañu koy mën a tontu nii rek daal dund ak ñoo xam ni euh, dañuy gis ne ñoom dañuy jëfee lenn ci bidaa du ma wax ne dañu parce que léegi ahlu bidaa dañu am koo xam ne day nekk kuy woote ci bidaam xam bidaa bi jàng ko xam ko xam lu lu leer ci bidaa bi di ci woote nekk daa yi kooku atteem ak atte ki nga xam ne mu xallit la day toppandoo rek jël na bidaa bi bidaa sàngam la mu jël ko di ko pratiquer rek nga xam ne mënu cee woo mënu la cee leeralal yenn yi ñaar ñooñu seen atte bokkul ku njëkk ki moom moo gën a tar atte ki ci des bu dee ki ci des nga xam ne xëy na moo lépp ci nit ñi ci wàllu jëflanteeg moom nit ki mën naa jëflanteeg moom ci nu mu gën a rafetee bu fekkee gis na ni bidaam boobu muy jëf moom jàppul ne mën na jeexital ci moom te loolu itam nit ki setal ci boppam jafe na loolu ndax yonent bi dafa doon wax ne man samia bi dajjal fal yan a anhu képp ci yéen koo xam ne dégg na ne masix dajjal ñëw na na daw na ko làqatu na ko sori tayib lan moo tax moo koy tere mooy lu wax ci beneen xadis ne kenn koo xam ne gëm na yàlla gëm yàlla gu wér dina nekk ci këram dégg masix dajjal di woote nit ñi topp ko mu dem ne day werante ji ak moom day dàggee ji ak moom ndax jàpp na ni moom àgg na ci ngëm yàlla foo xam ne waa ji lu mu mën a am ci ay subahaat mënu koo réeralati nee na bu demee masix dajjal weddiloo ko yàlla lu tax mu koy weddiloo yàlla ndax lu mu koy wan ci ay subahaat ndax koo xam ne danaan asamaan si tawal mu taw mu ne suuf si saxal mu sax mu ne la maay sa borom nga ne ko du dëgg doo sam borom mu ne ndax su ma la dekkiloon say ñaari waajur ñu ne la maay sa borom di ma gëm nga wax mu dekkil la say ñaari waajur ñu jug ne la sama doom kii mooy sa borom gëm ko daal di deewaat te ñaar ñooñu duñu ay nit dëgg-dëgg waaye ay shayatin lañ ay jinne lañ nga xam ne koo am lu toll noonu ci pouvoir di weddil nit ñi yonent bi wax ci wax jooju nga xam ne moom la wax ne ku gis ku dégg ci ma seex masix dajjal na ko sori ndax nit dina ko dina ko dégg gëm ngëm yàlla gu wér dem mu weddiloo ko yàlla naka noonu nit ki itam warta comme nañu ko waxee woon léegi rek warta gaaral boppam ay fitna ndax dafa am ci boppam rafet njot léegi yow kii na mu ngi boo xam ne ak koy jëfee noo xam ne ragal nga ni xëy na boo jaxasoog moom di nga ci jeexital li gën mooy ngay bañ ci jaxasoog moom loolu benn ñaareel ba mooy même bu fekkee doo jeexitalu ci jaxasoo boobu ngay jaxasoog moom itam mais booy jaxasoog moom nit mën naa influencer nit ba mu yaakaar ne waa ji li mu nekk dëgg la benn bidaakat bu ngand ñu lay seen ngay dem ak moom di ànd ak moom di toog ak moom di waxtaan di nekk ak moom chaque jour léegi benn waay mën na koo gis xam la yow sa dëggu ak dëgg gi nga nekk ne yow li nga nekk dëgg la loolu def ci moom rafet njort ba tax mu yaakaar ne borom bidaa bi li mu nekk dëgg la loolu yëpp ay fitna la ay mbir la yoo xamante ni mën na cee juddoo wala ngay toog moom muy wax ay toj tojam te doo ko wetti te yàlla daf laa tere woon ne la bu fekkee da ngaa dégg kuy dugg ci wa ida raayta alladina yaxuuduuna fi ayatina fa arid anhum xata yaxuudu fi xadithin gayrihi bu fekkee da ngaa gis ñoo xam dañuy dugg ci aaya yàlla yi di ci wax lu dul noonu yàlla mooy ne da leen war a dëdd ba baa ñuy ci seen mbir boobu nga xam ne ñu ngi ci nekk moo tax borom xamam njëkkee daan wax naan da nga war a mooy tundiku ahlul bidaa da leen war a dog fekk dañu ci seen bidaa boobu mais bu nit ki di dund ak ñoom ci jëflante mën na jëflante ak ñoom rafetal si digganteem ak ñoom mais mu bañ a àgg fenn fi ak koo xam ne xam na ni kii dafay nuur ci ay bidaa ndax nit ñi yemuñu am na si nit ñi ñoo xam day leer na ñii ñàkk xam leen jàpp doo mën a wax ne ñii ay borom yi bidaa lañ mais da nga naan dañoo réer ku réer nag da ngay jéem a fexe pour jubbanti ko jéem a ba a jeexitalu ci réeram boobu rek accepté ko ak ni mu réeree noonu mais chaque jour ngay jëm a fexe di xool noo koy jéem a jubbante génn ko comme lu yàlla lu yonente bi waxoon ali radiyallahu anhu ne ko lan yahdiya allahu bika rajulan waxidan xayrun min addunia wa ma fiha kii day laajte ba tey mu ni est-ce que mbokk yi nga xam ne dañuy dund sunna dana dagan si ñoom ñu rejeté ñi nga xam ni ay chiite lañu ay tabiat léegi chiite ci boppam waree su ko tudd sax di ci teg luy niroog jamaatu tabliix wala beneen jamaa bu mën a doon parce que bokkuñu chiite daanaka genre religion la bu nekkaat bu génn ci l'islam lu tax loolu mooy léegi dañuy wax chia wareesul di leen wax chia ndax dañ koy puukare woo chia mooy koo xam dafa faral kenn ñoom dañ ne ñoom yu shaayi'uuna ahlal bayt dañuy faral ñi nga xam ne ñooy waa kër yonent bi te loolu du dëgg dañ koo jël tuddoo loolu pour exploiter sentiment nit ñi pour réeral leen mais ñoom ñooy ar ba ñooy ñi nga xam ne dañoo rejeté ki ñuy wax Zayd ibn Ali parce que Zayd ibn Ali dafa nekkoon moom ci descendant wu Ali ibn Abi Talib mais dafa gëmoon Abu Bakar ak Omar gëmal leen seen xilaafa ni ñoom ñaar ñoo wutu yonente bi ginnaaw bi ñu fi jógee ñu ko toppoon dañ ko doon wax ne ko da ngay weddi ñoom ñaar da leen di weddi wala ñu bàyyi la mu ne moom du weddi ñoo xam ne ñoo doon ànd ak maamam tayib maamam mooy yonente bi alayhi salatu wasalam parce que moom ci sëtu yonente bi la bokk doomu Fatima léegi bi mu waxee loolu ñooñu daal di koy bàyyi fa rafaduhu ñu daal di koy bàyyi lamma rafaduhu summu bi rafida biñ ko rejeté ci lañ leen tuddee ñi nga xam ne ñooy ñi rejeté ñi am na ci borom xam-xam yi ñeneen lan moo tax ñu tudd leen rafida mooy dañoo rafd xilaafat abi bakar ak omar mooy dañoo rejeté ñaari ci sang yooyu ñaari njir ñooñu nga xam mooy abou bakar ak omar tayib léegi rafida dañu war a xam leen mooy ne léegi makkar la maanaa complot la boo xam ne dañ koo lu l'islam léegi ci bi yonente bi alayhi salatu wasalaam di dund di dund ak juif ci Madina li ko wër muy fi ñu doon wax Yasrib léegi dafa amoon ay juif yu fa nekkoon yoo xam ni dañ fa amoon doole lool nga xam ne économie bi seen loxo la nekkoon ñoom ñoo dominé woon ñu ci des daan jaxase diggante arab yi ñuy xeex ci seen biir pour ñoom ñu leen di gën di noot comme nu muy xewee tey ci jamono ji parce que juif seen i seen i benn la du soppeeku dégg nga dañ doon jaxase ñi ñuy wax al xasraj wa aws dafa amoon ci biir xeetu ñi ñuy wax al ansar laata yonent bi di ñëw ñi ñuy wax xasraj benn giir bu tudd xasraj ak giir bu tudd aws léegi dañ daan jël aws ak xasraj di dox ci seen diggante ñoom juif yi di wax ñuy gën di xeex bu ñuy xeex di gën a new doole ñoom juif yi di leen gën a dominer ba yàlla subhanahu wa taala def yonente bi alayhi salatu wasalaam ñëw madina yàlla jubbanti leen daal di leen di mbokkoole ci sababu yonente bi wadkuru nicmatallahi alaykum id kuntum adaa fa allafa bayna qulubikum maanaa léegi yàlla subhanahu wa taala dafay fàttali jullit bi ñu nekkee ay noonu yàlla subhanahu wa daal di lëkkale seen i xol ñu nekkat benn moo tax yonente bi mës na leen koo fàttale ñoom ansaar ne leen ndax nekkoo leen woon ay noon di xeex yàlla jël leen jël ma def ma nekk sabab ci ngeen daal di mbokkoo nekk benn loolu ci makru juif yi la woon bi ne yonente bi ñëwee ñu am ci moom keñaan listam bi gën a tas chaque jour juif yi di def ay complot pour fexeel yonente bi alayhi salaatu wasalaam ngir rey ko mës nañ ko invité mu toog ñu digal kenn mu yëg ci kaw jël benn objet sànni ko ci kawam ngir mu rey ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla wax ko ko mu dem mës nañ koo poisonné benn jigéenu jullit euh, juif boo xam ne poisonné na ko njabar nañ ko liggéey nañ ko lu bay ibn Asam jël na karaw yonte bi alayhi salatu wasalaam mu peñee ba pare mu jël peñe bi ak desitu yi nga xam ne karaw yi moo ci des mu fas ci ay fas takk ko dem sànni ko ci benn benn teen denc ko fa ci la suratul falaq ak naasi wàccee yàlla subhanahu wa yebal ñaari malaaka ñu mocc yonente bi alayhi salatu wasalaam ñaari saar yooyu wàcc yonente bi alayhi salatu wasalaam wér seen i pexe du jeex ba ni fi yonente bi jógee ñuy continuer di fexeel l'islam bokk na ci fexe yooyu benn juif boo xam ne cosaanam juif la wane ne dafa tuub dugg ci l'islam bëgg pour def renversement ci l'islam mooy Abdullah ibn Ubay Abdullah ibn ibn Saba Abdullah ibn Saba al yahudi bu mu ñëwee moom dugg ci l'islam wane ne dafa tuub moo tax cheikh al islam ibn Taymi rahimahullah mu ne Abdullah ibn Saba lu mu def noonu mooy li Bulus defoon Bulus tamit benn juif la woon boo xam dafa wane woon ne dafa dugg ci christianisme ngir def ci ay renversement yàq ko te fexlan kooku da koo def réussir ko boo jàngee histoire christianisme Bulus naka noonu Abdullah ibn Saba noonu la def bi mu ñëwee commencé woote daawaam ci fii capitalu bi islam nekkoon capitalu islam fi mu nekkoon ci jamono yooyu daawa bi woote bi mun a jàll ndax nit ñi xam nañ islam am nañ xam-xam xam nañ ni Ousmane mii fi nekk mooy xalifa bi dañ koo war a déggal topp ko moom Abdullah ibn Saba dafa dem sol ay dàllam dem ba sori xilaafa bi fi mu nekk mooy booru Égypte mu dem fa woote ji foofu nga xam ne dina fa nekk di woote ab wooteem kii bi euh, président ki nga xam ne moo jiite jullit yi di euh, Ousmane ak ña ko wër mën nañ ci bañ dégg dara duñ ko yëg te itam ñamay dem di leen woowi ji dégg l'islam des na ci ñoom mu dem fa woote fa wooteem ba mbooloo bu bari topp ko ci ay dégginam yoo xam ne moom la leen bëgg a déggaloo ñu àndandoo def mbooloo ñëw dugg ci biir jullit yi introduire ci biir jullit yi commencé nag di def li ñuy def boobu ñu ngi fexeel pour renverser pour rey Ousmane noonu lañ def ba rey Ousmane fitna bu rëy juddu ci biñ ko reyee ay coow yu bëri juddu ci ci la xilaaf bi tàmbalee am ci biir jullit yi tàqalikoo gi foofu la njëkk a commencé tàmbalee lu ko jiitu jullit yi ci benn xilaafa lañ nekkoon kenn moo leen doon jiite kenn mosul jëkkati kàddoom ci kaw ne kii du xalifa amul woon laata loolu Abu Bakar bi fi yonent bi jógee ñu jaayoo ko ñoom ñëpp dañoo dëppoo ci ne moom mooy xalifa am ñu weddi li yàlla génn ci lislaam mu jël jaasi xeex ak ñoom ak jullit yi ba ñoo ñooñu delluwaat ci lislaam mu rek lawaat problème yi amoon yépp jullit yi nekkaat benn di dund seen diine tey boobu ana chiites yi fu ñu nekkoon amagul woon loolu amagul existé gul biñ demaatee ba ci euh, xilaafatu Omar mu jiitewaat jullit yi at yim jiite jullit yi yépp kenn mësul dégg fikra bu mel noonu biñ demee ba jamono yooyu mu commencé di tes ne man damaa farak ahlul bayt te Ali moom moo gën a yey ci xilaafa gi moom moo waroon a nekk xalifa tayib loolu yemul foofu mu commencé de dugalaat ci bopp jullit ne ki war ki waroon nekk xalifa sax bi yonente bi faatoo mooy Ali Abu Bakar ak Omar waruñu woon nekk xalifa tayib moo tax benn borom xam-xam ne ñoom raafido yi mooy ñu ñuy wax siiti dañoo bëggoon a ñëw màbb alquran ak sunna te xam ne mënuñoo tëb dal ci kaw alquran ne du dëgg dal ci kaw sunna ne du dëgg ndax buñ ko defee nit ñëpp xam seenu kufru ñu jaar ci saxaaba yonente bi alayhi salaatu wasalaam biñ jaaree ci ñoom jam leen ne ay yéefar lañ dañoo weddi ginnaaw bi fi yonente jógee ba jam leen jam seenuk mandute biñ jaaree foofu nag ba am lañ bëggoon ci lañ soog a nag àgg ne léegi alxuraan ndakate kon sax du dëgg sunna du dëgg te loolu lan mooy li am mooy chia yi lan lañ wax quran bi ngeen yor matul du quran ñoom quran bi ñu yor seen quranu bopp la dañ koy nëbb parce que chia dañu am benn jukko bu ñuy wax taqiya taqiya mooy li moo doon wax sànq ci lan aaya bi yàlla subhanahu wa taala wax ne illa an tattaqu minhum tuqaa mooy jullit bi nekk ci biir yéefar ragal bu wanee julliteem ak lislaamam ñu fitnaal ko mu nëbb ko ñoom ñu ne ñoom dañu nekk ci ay biir yéefar kon léegi ñoom seen pas-pas dañ koy nëbb chia seen diina yépp nëbb la nëbb googu ba ci dañuy fen ñoom ku ñu uteel dañu day fenal ci kaw taqiya googu noonu chia ngay discuter mu ne la yonent bi seen yonent wala li ngeen wax yéen ci seen i téere moo ne yonent bi nee na nangam sàngam loolu boo ci bëggee xam lu leer dellul ci Buxaari dellul ci muslim parce que xam na ne yow mi ngay waxal Buxaari nga gëm muslim nga gëm te li muy wax ay fen la xadis boobu boo doon liir Buxaari ci commencement bi ba ci fin muslim ci commencement ba ci fin doo ko ci fekk bu fekkee jaahil nga nag nga commencé ay sikki sàkk ci sa diine fekk li muy wax du dëgg mais ñoom gis nañ ne mën ngaa fen pour jàllale seen jàllale say pas-pas te loolu qaayida boobu mooy même règle bi ngay fekk ci ci juif yi mooy al gaayatu barirul wasila nit ki li nga xam ne loolu nga bëgg rek jëm koo lijjanti noo jaar ba am ko baax na moo tax benn borom xam-xam waxoon naa ko mbokk yi bindina na téere boo xam ne li ci ëpp mi ngi ko jëlee ci minhaaju sunnatu nabawiya bu cheikh al islam ibni taymiya mi ngi ko bind di ko tuddee badlul majhud fi fi ithbaati mushabahati rafida bil yahud mi ngi ko bind ci lan ci leeral nuroo gi nga xam ni juif yi nuroo nañ ko wala chia yi rafida yi nuroo nañ ko ak juif yi ñoom ñoom benn lañ ci seen i jëflante ci seen i pas-pas ci li ñu gëm lépp benn la maanaam yow boo xamul rafida xam seen i usul seen i yi nga xam ne ci lañ tëral seen i pas-pas mënoo xam loolu mais boo ko jàngee dangay gis ne ñoom juif yi sorewuñu seen lépp benn la te waxoon naa ko mbokk yi ne leen bis boo gisoon chia dëgg ñiy dund raf rafd rafida dëgg wallahi laa tashukku ne ñi ay ay juif lañ wa rabbil kaaba benn lañ ñoo niroo seen lépp ñoo niroo bañ na ko ba rafida yi dund rafida dëgg niroowuñu ak sax jullit yi moo tax ma ni leen rafida bu leen ko sax tudd naan nu ñu jëflanteeg ñoom di tudd jamaatu tabliq wala beneen jamaa parce que ñoom dañoo sori islam bokkuñ rafida moom yenn borom xamoon sax nañu wax ne li yonente bi wax ne wa sa taftariqu hadihi al umma ila thalatin wa sab'ina firqa juróom-ñaar fukk ak ñett yooyu nga xam ne yonente bi nee na xeet bi dina ko tàqalikoo yenn borom xam ne dañ ne rafida bokkul ci ñett ñi ci juróom ñe ci ci ñooñu rafida bokku ci ñii ñi ci namm mooy ñoo xam ne ci islam lañ nekk ba léegi mais dañoo tàqalikoo mais rafida bokkuñ ci islam dañ fay dañoo wàll si te fenlan mu desaat ay yeneen yeneen gëstu yoo xam ne da nga ko ci gëstuwaat ci biir lan moo tax iranien yi accepté li ñuy wax parce que su chia dimbale ko tasaare ko ndax bëgg l'islam moo tax wala ndax ñoom ñi ñuy wax les Perses seen royaume bi ñu amoon laata euh, Omar ibn al-Khattab di daaneel seen royaume bi royaume boobu lañ bëgg a delloowaat moo tax biñ duggee biñ demee ba mënuñ ci dara ñu tuubal leen dugal leen ci l'islam ci jamono Omar ñu ubbi seen seen dëkk muy Perse ubbi ko seen royaume bi daanu mënuñ ci dara ñu dugg ci l'islam lan moo tax bi Rafida ñëwee rek ñu accepté ko jël ko ko mu nekk seen pas-pas di ko soutenir ba léegi nii ndax gëm l'islam dëgg-dëgg ak dimbali ko moo tax wala ndax métit boobu moo leen métti ñu bëgg delloo un bon jour bis bu muy doonaat ñu delloowaat seen royaume boobu loolu moo tax allahu alam yooyu yëpp ay point d'interrogation la kon bu ñu tudd rafeta fii ci jotaay tay moo des léegi lu mel ni ay yeneen jamaat yi wallahi jamaat yooyu mën nañu wax min ahli sunnati wal jamaa mais ndax min as-salafiyya allahu alam maanaa léegi lu ni ñi mbokk yi di bañ a mooy lan mooy ne léegi at tasammi bi nga ne diw salafi la loolu bu kenn dàq lan moo tax mooy loolu duggul ci par par loo duggul ci xatal dugul ci taral li tax mooy léegi boo ko bañee di nga bañ ahlu sunnati wal jamaa ndax léegi ahlu sunnati wal jamaa ju jamono bi yetu bi yontu bi sallallahu alayhi wasallam amu fi woon li fi nekkoon mooy muslim maanaam huwa alladi sammaakum al muslimuuna min qabl wasalaam jullit lu muy wax muslim lan moo tax léegi bi ñu demee ba jamono ah ñi doon dund li yonent bi nekkoon moom ay saxaabaam ñu meññu rak ràññale seen bopp ci biir jullit yi ne ahlu sunnati wal jamaa ndax dañoo dem ba yëg ne am nañ soxla boobu pour def ko moo tax ñu def ko ndax biñ borom xam-xam yi ci jamono daawuñ sax bind ci ay aqida bi aqida bi aqida bi daawuñ bind mais biñ demee ba fitna bi commencé tas ay pas-pas yu bon di tas ci lañ commencé di bind ay téere di wane li mooy aqidatu ahlu sunnati wal jamaa mooy gaay yi dund sunna te itam dëppoo ci sunna boobu ñuy dund nekk ci benn tàqalikoo wuñ ci lii mooy seen pas-pas yaataqiduuna kada wa yaataqiduuna kada wa yaataqiduuna kada ahlu sunnati wa jamaa dañoo gëm sangam ak sangam ak sàngam ak sàngam dañ koo gëm di leeral seen pas-pas ngir lan ngir mën a ràññetle seen bopp ci ña nga xam ne bokkuñ ci doxin boobu bokkuñ ci pas-pas yooyu la ngir wane na ñoom ñoo nekk ci sunna bi yonent bi doon dund alayhi salaatu salaam moom ak ay saxaabaam wane na ñoom ñoo ca nekk keneen ku ñoom nekku ci ci boobu bunt rek lañu doon leeralee maanaam pour leeral li am pour mbir yi bañ a jaxasoo tayib léegi ñu ngi dund jamono ahlu sunnati wal jamaa fii nga koy wax Sénégal wala beneen dëkk bu mel ne Sénégal ñu ciy jàpp koo xam ne parce que sunna la ak parce que su aqidati ahlu sunnati wal jamaa mais boo génnee fii rek même boo demee Égypte gii al qahira nga dem ci Caire ci seen université yi nga laaj mashayix yi fay jàngale ahlu sunnati wal bu ñu la commencé al konteel bi ñu lay njëkk a tuddal mooy al ashariya te mënoo koo dàq parce que dañ dem ba jamono ñi nekkoon ci ahlu sunnati wal jamaa amaat yeneen mbir yu ci juddoowaat ñoo xam ni seen i pas-pas jeng na ci yenn mbir yi parce que ashariya seen pas-pas ci wàllu jéngeen lu ci bëri ci wàllu asma wa sifaat lay dellu léegi yow boo bàyyee fi ahlu sunnati wal jamaa bi ba léegi ah kon ashariya ba léegi yaa ak ñoom yéen bokk meen pas-pas fexlan bokkoo yaag ashariya yi pas-pas tayib léegi ñu ngi dundaat di demaat di demaat ba yeneen ay kuréel di génnaat yii ñu ngi leen di tuddee ay mouvement ay xarakat ñu am seen i façon de penser ak seeni façon de jëf xam nañ leen ñii ay jamaat lañ leen tudde yoo xam ne xëy na du mouvement boo xam ne xaraka lañ koy wax mais ay jamaat lañ yoo xam ne am nañ seen façon yu jëfee boo leen gisee xàmme leen dañu am seen réglement règlement yoo xam ne moom lañ tëral ay genre règlement intérieur ak seen i base ak seeni i mbir yoo xam ne moom la ñuy doxee ñu ne la doxin yooyu nag comme que bokkul woon ci doxinu salafu saalih ay mbir la yoo xam ne yu fi la ñu bëgg koo boole ci ahlu sunna bi ah ñun day salafiyun ñun la salaf nekkoon doon ko dundee alquran ak sunna ñun déggin boobu ak doxalin boobu lañ bëgg a dund léegi kon lu ñuy def dañuy leeral suñu bopp ne ñun day salafiyuun li ñuy dund ah doyatul rek ñu ne ahlu sunnati wal jamaa bi comme nu mu doyatul woon rek ñu ne muslim mais léegi dafay laaj ñu wane ne ñun suñu déggin bi ñuy dundee alquran ak sunna dañ ciy delluwaat ci ne ko salafu salih dundee woon ngir wane ne déggin yi nga xam ne moom moo fi judd ci ginnaaw nit ñi di ko di ko dundee alquran ak sunna ñun déggin yooyu bokkuñ ci waaye ñun suñu déggin ci alquran ak sunna ñu ngi koy ñu ngi koy taataanee ca ñan ca salafu saalih te loolu mooy déggin bi gën a mucc allahu alam